الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi sant yàlla sunu boroom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di fas yéene ñëwaat ak yéen ci ñetteelu jataayu fatwa bi nga xam ne daairatu muqaddamatul xidma mi ngi ko doon amal diiru koor gi tàmbalee ba léegi mu mel ni ñaari jataay yu aju ci fatwa laaj tontu jàll na tey kon mooy doon sunu ñetteelub jataay ci koorug ren gi di sant mbokk yi nga xam ne ñooy bàyyi xel jataay bi ak fu ñu mën a nekk moo xam dañoo teew ak ñun ci biir jumaa ji mbaa ñu nekk ci biti tey teewlu waxtaan wi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan sunu boroom mu defal ñu te defal leen ak dégg ci mbooleem li nga xam ne moom lañ fiy waxtaane te mu làmboo ay njariñ sunu jataayu tey ni ngeen ko gisee dañ ko séq ak ñaari kilifa kilifa gi ci sama ndeyjoor di sëriñ alxaaji Mbàkke jaxate moom teewoon na ci jataay bi weesu ak bi ko jiitu ba àndoon ko ak ñun ci anam gu rafet ñu ñaan sunu borom mu dëgëral ko te may ko ak wér yàggal ko sunu kanam mu yàggale li mu naal ci liggéey lislaam ki nekk sama càmmooñ di sëriñ Murtada Buso moom sëriñ Buso Ilimaan moom it di koo xam ne ci xam-xam lay yëngatu di doomi soxna ñu jaarale ko fiñ jaarale fi ñu baaxoo jaarale doom yi soxna mu jànge alxuraan ci dëkk bi ba wattu ko bind ko wëlbatiku dugg ci daare xam-xam yi jàng fa wàllug diine ak wàllug langue arabe bi noppee ci lool it mu dem Mauritanie ci daara ju ñu wax annaba annabariya ci sëriñ bu ñu wax Cheikh Ba foofa la yeggale am njàngam bi mu bisuwaatee it mu nekk ci wàllu lislaam yëngatu lislaam yëngatu lu aju ci xam-xam lu aju ci jàng ak jàngale di ci taxaw ay taxawaay yu am solo moom it yal na ko sunu borom dëgëral te kàttanal ko kon bala ñu tàmbali dañuy jox sëriñ alxaaji mu nuyoo ñu jox sëriñ murtada mu nuyoo ñu door dugg ci laaj yi nga xam ne moo fi rot si asalaamaaleykum wa rahmatullah sunu bokk yi nga xamee ne noo bokk bëgg bokk pëstéef bi bokk taalibe noo ngi leen di nuyu te di leen ndokkal ci seen jataay yi nga xamee ne yéen ko def ngir bëgg a dundal xam-xam ci weeru koor wi nga xamee ne luy dëgër ci lislaam ci la tàmbalee kon nag noo ngi ñaan yàlla ci boppam mi nga xam ne mooy xamle mu xamal nu te may nu nu mën a ubbee ànd ak yéen ci waxtaan woo xamee nu ñëpp dañ ci jëriñu liggéey ci Sëñ kooku ci boppam lan la leen di nuyoo. jërëjëf kon Serigne Mourtada ñu jox la ñoo ngi nuyu ñëpp ci béréb bu tedd bi. di ci jiital waa daaira muxaddamatul xidma tey bég bu baax ci bokk gi ñu bokk ak ñoom liggéey bu am solo bi ci muy jotaay xam-xam yi nga xam ne mooy lañ fas yéene taxawee tey incha allah ca ñoom it ñu ko doon def naka jekk di sant bu baax a baax a baax xam naa nag sëñ Cheikh jotaay bi dafa mel ne fatwa nga ko tuddee waaye yaakaar naa fatwa moom kenn du ko def sa kanamu sëriñ xam naa ixtibaar lay doon rek incha allah. bu dee fatwa moom ki ko mën dëgg-dëgg mooy suñ sëriñ bi jàngal ñu di sëriñ Alxaaji Mbàkke Jaxate waaye nag sukkandiku ci li mu jàngaloon rek loolu la ñuy def man na jotaay bi ixtibaar la war a doon wala imtixaan xëy na jërëjëf jërëjëf sëriñ Murtada jërëjëf it sëriñ Alxaaji kon sëriñ Murtada ñu tàmbalee ci yow kii day wax ne fekkee ne xale bi day liggéeyee ci alal baayam waaye moom daa xam ne baayam du génn azaka tey nanguwul ku ko génne ci alal ji mu ne kon ndax xele boobu sañ naa génne azaka ci alal yu baayam jooju wala déet jërëjëf ku ne xam na ne joxe asaka farata la bokk ci juróomi ponk yi nga xamante ni ci lañ taxawal lislaam wa aqimu salaata wa aatu zakat kon lu mënta ñàkk la ku ci nekk war nga koy def waaye nag kuy joxe asaka yit ñi ngi la joxeloo asaka ci alal ji nga xamante ni yaa ko moom dëgg la doom bu fekkee mi ngi liggéeyal ak baayam lu man ci soññi baayam ba mu génnee asaka war na koo def su fekkee baayam sàggan na nangu wut a génne asaka moom doom ji amut responsabilité génne alal ji di ci joxe asaka ndax moomu ko waaye nag am na beneen yoon woo xam ne mën na cee jaar asaka ku ko nangu wut a joxe xam ngeen li ci lislaam wax comme ni ko Cheikh Khalil waxee wa kurhan wa ba mooy ku nangu wut a joxe asaka dañ koy jël ci yow nuñ ko mën a jëlee doonte dañ lay forcer sax kon doom ja na dem ci imaam ja fa nekk mooy imaam ji nag maa ngi ci jublu imaamu taate mooy kilifa gi nga xam ne mooy atte jullit yi jamono yooyu ñu mu toll su demee wax ko ko imaam ja dana ñëw ci moom laaj ko ko su bañee mu forcé ko génne ko su boobaa benn jafe-jafe rek moo war a am ndax kii lu tax yéene ji kenn kaneen waaye de yéene moo amut foofu waaye nag day mel ne ci masala moom boroom xam-xam yi wala ñi ci ëpp dëppoo nañ ci ne moom imaam ji mën na ko yeneel foofu nga xam ne imaam moo koy génne ci moom forcé ko joxe asaka ji kon na doom ji def loolu moo gën mu koy génne wala mu waxtaan ak moom rek ba mu génne ko ci tey ak bakkanam ku joxewul asaka loolu mooy sa atte kon dañ laa war a forcé génne ko loolu mooy li nga xam ne moom la sayiduna abu bakar radiallahu taala anhu defoon ginnaaw bu fi yonente bi jógee ca xam ngeen ne ñu baree bari tubbi surtout ci arab yi bari woon na ñii woote nañ ak yonente comme musaylamatul kazaab ñii bañoon nañu julli ñii bañoon nañu joxe asaka waaye ñi nga xam ne ñoo ci bañoon a joxe asaka ca moom ci lañ nekk nii da leen a forcé woon jël ci ñoom asaka ji joxe ko daana wax ne law manaaw law manaaw ni qaala ba'irin kaanu yutuunahu li rasuli sallallahu alayhi wa sallam la qaataltuhum ala zalika daana wax waxit ne wallahi la na man farraqa bayna salaati wa zakat li anna allaha qarana baynahuma mooy képp koo xamante ni bañ nga maa jox lu néew néew ci asaka mooy loo war a joxe ci joxewoo ko doonte benn nosub giléem lay tollool danaa xeex ak ci loolu loolu mooy cosaanul forcé koo xamante ni nanguwuta joxe asaka daana waxit ne wallahi danaa jàmmaarloog dana xeex képp koo xamante ni fas nga yéenee tàggale diggante julli ak natt asaka ndax yàlla moo leen boole kon loolu xam ngeen ne kenn wur leen a taqale ko kenn wur leen a taqale fa waylu lil musallin allazina hum an salaatihim saahun allazina hum yuraauuna wa yamnauna al maauuna googu am na ñu ko tekkee ñoo xamante ni dañuy bañ a joxe asaka wallahu taala alam jërëjëf sëriñ Murtada ci tontu bu leer boobu kon rek bala ñoo delluwaat ci sëriñ Murtada ñu jox laaj bi sëriñ kii day wax ne dundub doom dundub doom kañ lay war waajur maanaam doom ji kañ la war a dundal baayam walla yaayam waaw doom day ci boppam ak soxna ñooy tax ñuy tudd waa kër doom ji nag bi nga xamee ne juddu na maanaam warlul nañu yaay ji moo ko war a nàmpal di ko teete ba mu dëgër bu xàmmee baay bi ci boppam mooy ki nga xamee ne moo warlu lépp loo xamee ne ay fere yuy jëm ci moom la ci di ko yóbbu ca daara ya di ko jàngal bu ko dul jàngalit mu yóbbu ko fu fu ñuy jànge mu di ko foyal di ko taxawu ba nga xamee ne jot na gàpp mu kàllaf saa soo xamee ne jot na jotu jot na gàpp mu kàllaf nag kooku moom baayam dara waratu ko ci xanaa moom moo war a wëlbatiku nag xam ne baayam màggat na néew na doole lamu am nag mu fab ko di mën baay mënee ko fay waaye mu di ko dundal dund boo xam ne bii ci boppam day doon lamu attan lépp mu di ko mën di ko ca def dund boobee nag ci boppam bu koy def ci baay bi ak ndey ji wàcc ko fii ñi nga dund nag ndax dem na ba saa soo xam ne sa baay sax am na ab ñaareel ñaareel bi ci boppam sax yow yaa ko war di dundal bu demee ba ñaareel booba ci boppam am mbindaan mbindaan may yaa ko war a boole sa ñaareelu baay boobu di ko dundal feeg li nga yaa ngi koy man nga di ko def kon nag lépp loo xamee ne ci boppam baay bi def na ko loole yàlla tax mu def ko lii nag ci boppam lu ñu fay tudde fay bor la te mënu koo fay yaay ji ci boppam euh, doom ji bu dee doom ji jigéen na moom baay bi moo ko war di dundal di ko toppatoo bañ maye ko bu ñu ko mayee ba nga xamee ne gise naa ak jëkkëram dara waratul bàyyi ci moom loole ci boppam nag jigéen dafa néew doole kon bu demee ba am doole lam ciy warlu ci baayam ak ndeyam moo koy def waaye moom góor gi nag lañu lañu sarse ci moom moo xam ne moo war a jàpp ne ni baay bi amee woon doole ba di ko dimbale léegi néew na doole moo war a jàpp boppam ne mooy njiitul kër gi li ñuy wax nag chef de famille kon nag dund boobee moom du wàcc doom ji mukk féeg mu di ko mën ba baayam faatu ak ndeyam faatu boobaa nag moom ci boppam mu mu yoraat ak njabootu boppam la mu ca def nag bu mënee jël en lu bokk ci ñi nga xam ne ñëpp ñooy famille bi mu def ko su ko mënut mu dundal boppam ak ko nangoo ànd ak moom. jërëjëf Serigne El Hadji Sëñ Murtada kii day wax ne jigéen ji julli te gàddu xele boo xam ne yéeréem dafa tooy. waaye nag jigéen ji xamul ba xam ndax yéer yi tooy sobe la wala du sobe mu ne kon su boobaa lan mooy àtte julli googu yéere xale bu ndaw xilaaf dafa am hal yuxmalu ala tahaari wala ala najaasa ndax dañ koy jàppe lu laab ndax li nga xam ne mooy cosaan al asl mooy taxaara donte sax nag moo gën a néew ci yére gone wala ndax dañuy jàpp ne dafa sobewu ndax loolu mooy li gën a bari ci yére gone waaye nag mooy li gën a néewit ndax al asl mooy taxaara kon hal yuxmalu ala al asli al xaalib aw ala al qalili naadir lu lan ndax lañ koy aj ndax ci sobe lañ koy aj wala ndax dafa laab loolu wute am na ci lenn ci boroom xam-xam yi ne li gën a wér dañ koy xool ci ne laabut lool li nga xam ne doonte mooy li gën a néew waaye nag mooy li nga xam ne mooy cosaan it ci yére gone loolu wax yooyu am na ci nga xam ne loolu kon ku xale kuy julli gone yéeg sa kaw xaw toog sa kaw nag baax na ci wala yu mel noonu wala mbubbam tegu ci sa kaw su boobaa sa julli googu ndax dañ naan wér na wala wérut waaye day mel na ñi gën a bari ci borom xam-xam yi dañ ne dañ koy delloo ci ne li gën a bari mooy yére yi gone dañoo war a jàpp ne laabut ñenn ñi xàjjale ne nañ xool famille ba mu bokk bu dee ñu farlu lañ ñoo xamante ni danañ sàmmonteeg setal seeni gone bu baax a baax xam nañ li nekk ci sol sobe ak nga xam ne duñ ko ko solal su boobaa ñu jàpp ne xale yooyu seeni gone dañuy set seeni yére yére yu laab lañ ko jàppe bu dee ñoo xam ne nag dañoo jàpp ne dañoo xaw a sàggan book ba ëpp ba nga xamante ni xëy na danañ duñ moytandiku baax baax ci gone gi ñu jàpp ni yére yooyu yére yu sobewu la loolu kon masalatu xilaaf la baynal ulama moom la lenn ci boroom xam yi way ne wahal ala al xaalibi athwaabu sabi awi taxaaratu wal awalu tubi ndax yére gone yuxmalu ala al xaalibi li nga xam ne moo ci gën a not ca mooy sobewu awi taxaara wala ndax dañ koy acc ne lu laab la masalatu xilaafin bayna al ulama waaye nag moom mi way way yooyu di cheikh Mouhamad Mawlud ibnu Abdul Jawaad nee na wal awwalu stubi wax ju njëkk ji ñi ne dañ koy aj ci li nga xam ne mooy alxaalib mooy li ci gën a bari nga xam ne ñàkk laab nee na wax jooju mooy li gën a wér solo nañ nag ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daana nekk di julli di yanu bi ñu daan wax umaama umaama sëtub yonente bi lawoon baayam moom lañ daan wax abul aas ibnu rabi yaayam di soxna zeyna bu moomee ca seen diggante bari woon xissa lu gudd gudd lu ci amoon yonente bi daana ko yanu ci biir julli loola nag ci lañ ñenn ñi sukkandikoo ne loolu moo waral bu fekkee xale bi kon dafa bokk ci ñoo xam ne ñu set lañ ñoo xamante ne ñuy sàmmonteeg laab lañ bu baax a baax ay yéereem dañoo war a jàpp na lu laab la waaye nag loolu lépp it feeg gisuñ ci sobe nag buñ jeex gisee wala ñu yaakaar ko ci su boobaa nañ jëfandikoo loolu ñu kii waaye lii mooy bu fekkee dañ ci xamul dara moo tax ñuy wax umaamatu moomu yonente bi daana ko yanu ci biir julli wan sublahu umaamatun zaatul wafa xamalaha waqta salaati al mustafa wallahu taala alam ba tey seen sëriñ Murtada kii day laaj ba xam bëccëgu koor ak guddi gi lan moo ci gën weeru koor yu ñu nekk guddi gi ak bëccëg bi lan moo ci gën loolu la bëgg a xam wallaahi allahu alam waaye xawma benn nas bu rot ci tafaadul diggante bëccëgu koor ak guddi koor waaye ku ne xam na ne li nga xam ne eh, kuy xalaat rek wala ngay xiyaas bëccëgu koor ngay gën a notal ci guddi koor eh, li ko waral bari na ku ne xam na ne bëccëgu koor xorma ji ci nekk bari na Eh, li ci yàlla waral bokk na ci muy weeru koor gi ñu ci def yu baree bari it ci ku xotti may koor xam ngeen li ñu lay waral lépp li ñuy sanctionné gis ngeen kafaara kenn rek la war muy ku bañ a woor bëccëgu koor ak yeneen yu baree bari yoo xam ne bëccëgu koor la war lenn ci boroom xam-xam yi gis nga ñu ne ku tukki sax tukki boo xam ne du la sonal weeru koor soo mënee woor moo gën wa an mu xayrun lakum loolu it ñoom bokk na ci liñ sukkandikoo mooy ngir màng lu bëccëg boobu ndax jamono la joo xamante ni buy am dootu amaat lu bari muy bëccëgu koor warees naa mën a jàpp ne moo gën ndax moo gën a bari xorma guddi yi nag tedd na lool ndax yonent bi ne ne man saama ramadaana imaanan waxtisaaban xufira lahu ma taqaddama min zanbi wa ma taaxara waxaat na it ne man qaama ramadan imaanan waxtisaaban xufira lahu maa taqaddama min zanbi wa maa taaxara digle na ku ko woor ba cëg bi digle na ku taxaw guddi gi waaye nag loolu xëy na warees na cee mën a settee génn guddi ci guddi yooyu muy guddi gi nga xam ne mooy guddi laylatul qadr li ko waral it mooy nasul quraan auzu billahi min asheytaan rajim inna anzalnaahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri xayru min alfi shahr guddi laylatul qadri moo gën junni weer loolu waris na ci mën a dégg ne kon boo gënalee bëccëgu koor ne moo gën it waris dañ ciy settee guddig laylatul xadri googu ndax nee naa la nasul quran sarix moo ñëw ci wane ne moo gën ci junni weer allahu taala sëriñ alxaaji kii day wax ne xaqu waajur ak xaqi sëriñ bi jàngale kan lañ ci war a jiital xaqam maanaam sa waajur ak sëriñ bi lay jàngal kan nga war a jiital xàqam ci ñoom ñaar ñooñu euh, àqi waajur di rëy na lool waaye sëriñ Tuuba wax na ci nax ju xaddaayil haaji ne man de gis naa ne sama àqi waajur rëy na lool waaye nag waajur wi ci boppam moo ma jox mooy lekk ba ne fuut di ma toppatoo yaram wi rakk lay xam ki nga xamee ne nag moom a jàngal nag moom sama ruu lay defar ba nga xam ne man ci saa jëmi bopp na yàlla bëgg ab jaam mel na bu dul woon moom du ma ko du ma du ma du ma ko xam kon nag sama ba ak waajur di dinaa ko jàpp lool waaye nag ki tax ma mën a doon jaamu yàlla bu jaamu yàlla na ko yàlla bëggee de kooku mooy sama sëriñ bi nga xam ne moom a jàngal kon nag du ma wax ne de ak waajur moom laa gën a fonk waaye ak ki nga xam ne moom gindi sama diggante ak sama borom day kooku moom a jërëjëf sëriñ Alxaaji sëñ Murtada kii dafa wax ne waa joo xam ne daa tukki ngir jàngi jàngi xam-xam waaye nag amu ci ndigalul baayam ndax kooku dañ koy jàppe mu mooy ay juróom walla déet waaw topp ndigal waajur moom mënta ñàkk feddaliku na lool wa qadaa rabbuka laa ta'budu illaa iyyaahu bil waalidayni ihsaanan wa wassayna al insaana bi waalidayhi husnan ak addila yu bare bari yu ko tegtale kon wares nay jokkook ñoom ci yu bare bare yoo xamante ni looy def la nit ki lu muy def la wares nay jokkook moom ci ay waajuram eh, digle nañ ko ci fu bare bare xam ngeen ne ba ci xam ngeen ne ba ci yu baree bari ci xeeti jëfi naafila yépp wa ñu ngi lay digal nga diisoo ci moom loolu nag bokk na ci sàkku xam-xam waaye sàkku xam-xam bi it xam naa lu dut fardu ayni la war a doon li nga xame ne mooy fardu ayni ci jullit bi kooku war na koo mën a def ca du ci diisoo kenn ndax loolu mënta ñàkk ci moom yàlla mooy ki ko farataal ci moom ca nag xaqullaahi muqaddam ci xuquq yi ci des yëpp moom la ñu war a jiital aq yàlla la war a jël ci aq yi des bu fekkee mi ngi jàng xam ne nag génn na fardu ayneem xëy na yu muy mottalee rek la ak yu mel noonu baax na loolu mu diisoo ceeg waajuram waxtaan ceeg moom ba mu jubu ko bu ko jubee mu dog koo def ni ko noonu ba tey xeeti jëf yu baax yépp xeeti na waa fi yu baax yi muy def yeneen yi ca yépp gis ngeen ba ci xare sax dañuy bëgg ngay diisoog sa ñaari waajur yooyu dem di wax ak ñoom loolu baax na ci bat lenn ci kilifa yu baax yi sax yenn kilifa yu mag yi daanañ def nit ki bu ñëwee jokk ci ñoom ci moom ca xaw a nekk gone wala yu mel noonu wala ñu yëg ni ay waajuram loolu neexu leen dañ koy yebal ne ko dellul diisoog sa waajur yooyu ci loolu bañ ba mu jubu leen nga doog a ñëw wax boo ñëwee ñu doog laa nangul loolu walla kulli xaal bu fekkee kon li muy sàkku ji fardu ayn la loolu jarul mu ci tàgg kenn bu fekkee nag jéggi na fardu ayn mooy li nga xamante ni ci lay diisoog ay waajuram waaye nag fardu ayn ngeen xam ne xaw naa yaatu tuuti jërëjëf ba tey sëñ Murtada ki day wax ne li Maalikee di wax ne ki teew te dara jotu ko munta tiimal jullig ajjuma loolu li laaj ba xam loolu fan la ak wéram tollu loolu mooy li nekk ci li ëpp ci kutubul Maalikee yi nusuus yi risaala boo ci demee yaakaar na xaliil wa xaadirun saxihatin bi fardin laa jumaatin waaye dafa mel ne masala moomu ki ko laaj laaj na laaj bu am solo mat naa taxqiq bu baax a baax a baax niñ koy déggee ci kaw gi ca ñu bari di ko tekkee mooy koo xamante ni danga teew wér nga xam ne robinet yi moo tëj wala yu mel noonu kooku bu waxtu julli ajjuma jotee bul tiim dem di julli ajjuma loolu loo ciy déggee mooy bàyyil dem tiim dem julli ji tisbaar xëy na loolu la ñu war a déglu loolu xëy na bu fekkee mashhur la mooy li ulama yi tudde mashhurun mabniyun ala daif lu siiw la waaye ñi ngi ko sukkandikoo ci loo xamante ni wérut loolu mooy ndax ajjuma badal la min az-zuhr wala du badal ci zuhr bu fekkee nga xam ne dañ naan bu fekkee badal la ci zuhr demal tiimi demal tiimi julli ji tisbaar googu ci bàyyi ajjuma ji waaye lenn ci mu xaqiquun yu bare bare bare bëri taxriir nañ masala moomu dañ ne li ñu war a dëppoo mooy koo xamante ni dangaa jàpp ne am nga ndox waaye boo naree nekk di jëfandikoo ndox mi ajjuma ji daan la raw kooku bul tiim bul bàyyi jëfandikoo ndox mi dem di tiim ngir naan damay def ajjuma ji loolu la ñuy wax demal jël ndox mi jàpp bu la ajjuma rawee nga dem julli ji tisbaar ñoom noonu lañ ko déggee waaye nag bu fekkee ñàkk nga ndox ñàkk ndox goo xamante ni mu wóor la ne boo tiimalut ajjuma tusbaar ji it ajjuma ji it tusbaar ji da ngay dem di ko tiimal rek ñoom mu xaqiquun yooyu ñu ci baree bari dañ la nag kon dee déedéet demal tiimi julli ji ajjuma ndax ajjuma al mashhur mooy yow yawmiha mais du badal ci zuhr faratay bisam la masala moomu kon loolu la ci taxqiq li ci lenn ci mu xaqiquun yi noonu lañu ko taxqiqe mooy fard xayri jumaatin gi ñu wax ne kenn du ko tiimal maxallu loolu mooy bu fekkee da am ndox ca ragal ne boo demee di jàpp wala yu mel noonu danañ julli bàyyi la wala yu mel noonu bu la wóoree ne nag loolu demeewut noonu da amul ndox nga xam ne boo tiimalu ajjuma ji tusbaar ji da nga ko tiimal rek ñoom dañ na kon demal tiimi julli ji ajjuma jooju ànd ak mbooloo mi allahu alam jërëjëf sëñ alxaaji ki dafa wax ne ab murit nan lay xamee ne ak taalibeem dëggu na ab murit day murit day mooy koo xam ne kii bëgg lu dul yàlla bëgg lu dul yàlla tey sëñ bi gëm na ko gëmiinu mi ngi ko aj ci li sëñ bi nekk ci li yàlla gën a bëgg mu di ko ci roy di ko ci roy di ko ci ba sëñ bi ci boppam àgg na ci duutu ko maanaam digal duutu ko traité ndax xam na ne kii kat ci boppam lañ lañ ko war a defare defaroon bàgg ca la mu koy xamee nag ci boppam moo def saa soo xamee ne sëñ bi nee na riis rek fu mu toog rek ñu la ko sëñ baa ngi nii fu mu tool yi digg ak dëggoom ci sëñ Touba dana àgg faa soo xamee ne dem na ba am lu mu bëgg rek bu dootoo ci xelam rek demee sëñ Touba mooy teew ne ko nangam ak nangam koo xamee ne nag bëggul lu dul li yàlla bëgg bëggul lu dul li yonent bëgg li sëriñ bi digle ma nga ca lam tere ma du ko laal mukk teyit ci boppam du rot ci xolam mu wéet ak mu tukki ak mu jaxasoog nit ñi ak mu mu mën a doon lu dul seey na ci yàlla kooke daal moo di moo di ci gàtt jërëjëf sëñ Mourtada ki dafa wax ne policier bi nga xam ne dañoo taxawal julli ci biir jàkka ji waaye moom du julli ngir ne moom moo yore wàllu sécurité bi du mën a julli mën na lan mooy àtteeb waa jooju euh, loolu moom rek comme ni ngeen ko xamee taxadusu linnaasi aqdiyatin bi xaysi ma axdasat min al fujur xëy na masala la moo xamante ni muñ war a xool la waaye neex naa xam lool mooy moo xam police bi wala garde bi ki nga xamante ni dafa ñëw ngir wattu sécurité kilifa réew moom mu nekk walla ku mel ni moom kooku dëgg la xay na kooku fi mu waroon laaje mooy bu fekkoon ne julli ajjuma jot na nga xam ne dana ko raw waaye bu doon julli tusbaar xëy na faddul jamaa mooy li nga xam ne moo koy raw donte loolu it ngëneel lu baree bari la loolu rek nañ xool ku ne xam na ne bu dee waxtu yi ci des la nga xam ne di julli farata loolu bari na loolu ñu ngi koy gis fu nekk ñu taxaw di wattu ngay duñ julli cam gis ne loolu nga xam ne mu ngi koy garder mënta ñàkk ala kulli xaal bu dee waxtu yi ci des kooku dana ju na bàyyi rek garde bu noppee dem julli ji tisbaar li ko raw rek mooy fadul jamaa beneen mbir rek moo ci am moo ci war a gën a diis mooy bu fekkoon ne julli ajjuma la ndax xam nga julli ajjuma farata la donte julli jasit farata la waaye ni ñu koy jullee bokkul ndax ajjuma xam nga ne ci mbooloo rek lañ koy jullee ci juma ci xëy na bu kalawee dana jafe waaye loolu lépp nañ xam ne dafa am lu ñuy wax mooy irtikaabu axafi dararay ne wala sax bu la neexee nga ne ad daruratu tubixul mahzura ku ne xam na ne xifsu nizaam mënta ñàkk mooy ay autorité mënuñoo ñàkk cim réew nit ñi mënuñoo ñàkk mbooloo moo xamante ni moo leen di jiite di toppatoo seeni mbir loolu mënta ñàkk naka jekkit mi ngi am gis nañ ne it loolu bu fekkee am na ñooñu seen kaaraange xam nga ne mënta ñàkk moo tax bëkkul ci xel nag lu metti metti rek nga ne loolu nga bëgg ko tere mënee sut ne mbooloo mu baree bari mën nañ ko def waaye liñ gis ñoom ne moo war a yor kaaraange googu walla kulli xaal bu fekkee julli nañ bàyyi muy julli ñu nekk di ko di ko wattu ca xam ngeen ne ñàkk koo def dara mën na ci juddu loo xam ne mën na indi loraange ju mag a mag a mag loolu defe naa amul solo kon loolu warees na ko mën a wayefal ngir daruura rek nag moo tax ñu koy wayefal daruura nag comme ni ko ulama ul usul yi di waxee rek yuxtasaru fiha ala daruf ca kenn du ca weesu maxalu darura mooy su boobaa nañ xool ñi mënta ñàkk ci garde yi yor sécurité bi nañ ñooy ñi nga xam ne ñoo war a taxaw féetewu loolu bu leen wóoral ne sax war naa mën a am fu mu nekk foo xamante ni dara du ko fekk mën nañ koo kii sax loolu moo gën waaye bu mënta ñàkkit ñi nga xam ne ñoo ràññeeku ci loolu rek ñooy ñi nga xam ne ñoo ko war a def loolu ku ne xam na ne fiq bokk na ci yi cosaan yi nga xam ne ci lañ ko fondement ay xawaid yoo xam ne yu baree bari la xat ussisal fiqhu ala rafi darar wa innama yashuqu yajlubul watar ba bay di jeex ni ko Sidi Abdullah waxee ci maraaqi suxut mooy fiq am nay masail yoo xamante ni ci lañ ko teg ci lañ ko fondement ci lañ ko tabax bari na bokk na ci li ñu wax léegi mooy rafoo darar mooy ad darura tubixul mahzura ngant dana waral ñu fekk loo xamante ni lu waroon a diis lañu wayfal ko ba tey it li ñuy wax ñoom usuli yu ñuy al mashaqatu tajlibu taysir ngant wala jafe-jafe coono bu métti dana fekk ñu fekk jafe-jafe lu waroon a jafe wala lu waroon a compliqué waaye ngant loolu moo koy waral kon loolu ala kulli xaal ku ne xam na ko ak fi àdduna si toll loolu kenn mënu ko sikkal kenn mënu ko tere ndax daruura la mënta ñàkk ndax ñàkk koo def li ciy juddoo defe naa moo gën a màgg fuuf ca loolu xel nangu ko di leen fàttali rek na loolu xëy na ci méthode bi muy amee nii léegi la xew lu ni mel xaw naa yàgg am lu ni xaw a niru daal Euh, xam ngeen leen ni ci xulafaa yi jiitu woon Seydina Ousmane radiallahu taala anhu gis ngeen jafe-jafe yi ku fi jële woon mooy suwaar yooyu robel yooyu ak ni mu fi jóge jóge gu metti gi Omar radiallahu taala anhu gis nga dañ ko jamoon euh, Seydina Muawiya ibn Abi Sufyaan bi nga xamante ni dem na ba nekk xalifa li nga xam ne moom la fuqaha yi tudde maqsuura maqsuura jege na ak lii loolu mooy barrière bii li nga mooy jàkka nga dem ba ci wetu imaam ji nga dagg fa dara foo xamante ni xëy na ñëpp lu ñu fa mën a àgg dañ ne loolu Muawiya ibn Abi Sufyaan moo ko njëkk a def sécurité la ci jubluwoon jubluwu ci woon leneen xam naa mi ngi jëlee expérience ci Omar li ko daloon Ousmane xam naa moom it comme am nañ wuute woon ak moom looloo waraloon mu mu defaroon maqsuura kon lu yàgg yàgg la Muawiya mooy ki ko njëkk a def maqsuura lañ ko la ko tuddee boo gisee ci téere fiqh yi moom lañ noonu lañ koy woowee maqsuura loolu la ci jubluwoon it ngir ragaloon su xamee su fekkoon ne mënees naa def pexe yoo xam ne mën naa ñàkk it alaa kulli loolu mooy li nga xam ne moo gën waaye feeg mënuñ koo ñàkk moom kenn wuru ci wuute ci loolu. jërëjëf sëriñ Mourtada ba tey it laaj bi yow lañ koy dollawaat kii day wax ne lan mooy àtteb joxante loxo diggante góor ak jigéen lan mooy àtteb ci charia. waaye loolu yaakaar naa ñépp xam nañu ne dëggut musaafaxa ajnabiya mooy jox loxo jàmbur bu jigéen ku koy def it moom yaa ngi koy def waaye nag lislaam mënu koo daganal amut solo jàmbur bu jigéen eh, comme ni ko xëy la wax rek comme même koy ngor wa xalalaha nazaru wajhiha wa kaffayha faqat xool ndax ñu ngi daganal sax nga xool kanam gi ak tenq yi rek jëleel naa nag di joxante ak moom di jonjook moom loolu baaxut ngir addila yu baree bare yu tegtale ci ne daganut yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu jaayante ci yowmul fat wala bis bi topp ci yowmu fatxu makka ni mu doon jaayante góor ñëpp ñëw xam naa da ngay mel ne danga koy jox loxo boo ko joxee loxo ba noppi euh, mu jaayanteek moom ci liñ war a jaayante bi nga xamante ni dem nañ ba agsi ci jigéen ñi ñoom ñu bëgg a jaayante comme ni góor ñi doon jaayante dana leen inni la usaafixu nisa man kat duma joxante loxo ak jigéen wa ma qawli li imraatin waxida illa ka lii li miati imraa te li ma wax kenn ci yéen rek mooy li ma wax ñëpp mooy atte la boo xam ne na ngeen ko dégg yéen ñëpp jariñoo ko du ma jox jigéen loxo sayyidatna Aïcha mi nga wax ne wallahi ma massat yaduhu yada imraatin giñ naa ne loxo bi yonente bi musta tegu ci loxo beneen jigéen boo xamante ni ab jàmbur la ci moom kon loolu dëgganut ca xam ngeen yàlla nee na laxat kaana lakum fi rasulillahi iswatun xas uswatun xasana yonente bi warees nay roy ci moom bu baax a baax ci yonente bi moo waxoon loolu yeneen adilla yi tegtale tere lool it bari na lool bokk na ci mubaashara jigéen dëgganut ci koo tëkkut ci araamu la di ko laal dañ koy tere wala yusaafix rajulun ma amara li annahu udda min al mubaashara am na ku laajoon kenn ci ulama yi ne ko musaafaxa ndax dagan naam dëgganut kooko tontu ko tontu boo xam ne ci kaf la ci jubluwaaye bëgg na ko tontu tontu bu gaaw da ko wan ne ko mubaashara jigéen mooy làmb ko direct dañ koy tere koo tëkkut ci araamu la te musaafaxa ci loolu la bokk koo ko def rek def nga ko mubaashara moo tax mu ne ko walaa yusaafix rajulun ma amara li annahu udda min al mubaashara loolu kon amul solo xadis yi tegtale loolu bari na yii wér na am na ci yoo xam ne wérut bokk na ci xadis boo xam ne bu fekkee wér na yonente bi dane nit ki ñu jël ab puso wala dara dugal ko ci yaram wi génnewaat ko moo gën a woyof ci moom muy laal jàmbur bu jigéen boo xamante ni tëkk ko loolu dañ koy tere baaxut xilaaf it mënees na ne amu ci wala boo bu fekkee xilaaf am na ci du xilaaf bu am solo ñi naan yonente bi yowmul bayaati booba it dafa jëloon mbubb teg ko ci loxoom doon ci jaayanteeg jigéen ñi loolu li gën a wér mooy wérut kon daal xilaaf amut foofu wala boog bu xilaaf amee du xilaaf bu am solo fa laysa kullu xilaafin jaa mu'tabaran illaa xilaafan lahu xazun min an-nazari du xilaaf bu am solo li gën a tegtale loolu it bari na jigéen fii ñu ci lis fi ko lislaam yam loo bari na jàmbur bu jigéen ñenn ci boroom xam-xam yi sax dañoo jàpp ne toog di lekkandoo yaag benn jàmbur bu jigéen yéen ñaar rek gënut amul solo donc ñenn ñi ne loolu daruura mën naa tax mu dagan waaye nag nay jigéen goo xamante ni ku xaw a mag lay doon wala wéet bañ am seen diggante nga xam ne yéen lekkandoo ak yéen ak xam nga kuy tereendoo ngeen toog di lekk ak yooyu kooku ngeen di joxante loxo waxi nopp niki noonu ba tey fuqaha yi sib nañ genn góor di jiite jàmbur bu jigéen yéen ñaar rek nga doon julli benn jàmbur bu jigéen rek nekk si ginnaaw di julli dañ ko sib bu fekkee mbooloo lañ nag xëy na amul solo wala sax ñu ne góor ga nekk ku baax ku kawe lool ci ngëneel bopp wala yu mel noonu masala yi ñu mën a jëfandikoo ci loolu bari na mooy même jàmbur bu jigéen sax boo ko fekkoon mu toog fuqaha yi wéral nañ lool ne dem di ko wax asalaamaaleykum sax gënu ko jàmbur bu jigéen surtout na bu fekkee day koo xamante ni ragal nañ ne fitna war na cee am wala yu mel noonu kon daal jàmbur bu jigéen li bu fekkee takkoo ko araamu la wala yu mel noonu rek sori ko mooy li nga xam ne moo ci gën la neen lu ci nit di defet nag mu xam ne ñu ngi koy def ko ci bakkanam rek waaye bokkut ak li nga xamante ni moom la lislaam bëgg ci moom allahu alam kii ba tey dafay wax ne su jootub jàng alquran lan mooy ab atteem ci heure yi nga xam ne dañoo tere ku ci la maanaam ki doon jàng alquran ba agsi ci barabu sujjóot waaye mu tombeek nag waxtu wu ñu tere ku ci naafila mu ne lan mooy àtteeb sujjóotu jàng bi ci heure boobu dafa am waxtu yoo xamante ni dañuy teree ku fa julli julli koo xam ne du julli farata xaala cheikh xalil mu ne naflun waxta tuluu shamsi wa xurubiha wa xutbati jumaatin dem na bana ila an tusalli al maghrib ba kiy jeex mooy dafa am waxtu yoo xamante ni dañuy tere ku fa julli léeg-léeg danañ ko araamal bokk na ci buñ jullee takkusaan ba noppi wala ñu jullee suba bu jant bi fenk boog damaa jum wala buy so niki noonu ba tey dañ loolu dañ ko tere ginnaaw bi nga xam ne lim laaj moom mooy ndax su jot tilaawa atte benn rek mooy naafila li ñu jublu foofu mooy lépp lu dul farata rek julli farata dañ ko tere foofu bu fekkee julli nañ takkusaan ba noppi nag naafila lañ fiy bañ waaye bu fekkee sujjóot tilaawa la wala jullee néew wala yu mel noonu ñoom ulama yi daganal nañ ko ba li ñuy wax timis xaw a jege tuuti li ñuy wax eh, isfiraar xaw a jege ni ki noonu ba tey buñ ñu jullee suba ba noppi ba tey daganal nañ ko ba nga li nga xam ne mooy isfaar dem ba gën a jege waaye nag luut loolu dañ koy tere cosaanu loolu mooy xadiis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laa tanxaru bi salaatikum wala li salaatikum waxta tuluui shamsin aw gurubiha fa innaha tatluu bayna qarnay sheytaan bu leen jëmali seenub julli waxtu yi nga xam ne jant bi mi ngi fenk wala mi ngi so ndax jamono yooyu day mel na day jant day fenk ci ñaari xarnu seytaan ñaari béjjëni seytaane nga xam ne ñoom boroom xam-xam yi kon day mel ne dañu kuy sujjóot ci jamono jutal noonu da ngay mel ne kuy sujjóotal seytaane ci lañ xiyaase nag ne lu dul farata lu mu mën a doon nafil danay tekki ci ay itlaaqaatam bari na bokk na ci li muy tekki mooy léeg-léegi mooy lu dul farata naafile foofu loolu lay tekki dañ koy tere ci waxtu woowu def ci di ci def sujjóotu tilaawa waaye naafile ak sujjóotu tilaawa wuute nañ tuuti ndax naafile ginnaaw julli takkusaan ci saas rek lañ koy tàmbali tere ba ba jant bi so bu dee sujjóotu tilaawa nag wax naa la léegi ne la may nañ la buñ jullee takkusaan ba isfiraar amagun nga sujjóot ko niki noonu ba tey lu mat lu mel ne jullee néew ak yu mel noonu wa jaaza inda ulamaai almazhabi bayna alxurubi wa salaati almaghribi wa qabla al isfiraari wal isfaari salaatu maytin wa sujudi alxaari jërëjëf ñu dellu ci sëñ alxaaji kii dafa wax ne lan mooy àttab koo xam ne dafa juum sujjóot xabla salaam te fekk mu waroon def baada salaam kon daal mu da ko safaane sujjóotu salaam nga bàyyi ko def baada am dafa waroon sujjóot baada salaam far ko def xabla salaam baada salaam moom doonte da daaw la woon nga bàyyi woon loo xamee ne wala nga yokk loo xam ne lii waroon ngaa def ba de salaam saa soo ko fàttalikoo rek wan waxtu mën a doon roto sujjóot da ngay daal di sujjóot ñaari sujjóot taay sëlmal doo ko seet nag faneen foo nekk ci nit ñi yeeg foo foo ko deful saa soo xamee ne fàttalikoo ko te defoo ko rek julli goo ko yàqu na danga koy fayaat jërëjëf ba tey it sëñ alaaji ki day wax ne ki nga xam ni daa yokk mbaamu wàññi ci julli gi waaye nag sujjóotut moom daa waroon sujjóot waaye sujjóotut mu dem rek daal di baamuwaat julli gi lépp tàmbaloon rek fa mu tàmbaloon rek xam nga baamuwaat gi julli gi moom mooy xelam matul rek waaye saa soo xamee ne yii yëpp maanaam lii la waroon a def defu ko lee la waroon def defu ko na jàpp ne nangam la ci lot ci xolam rek la lot ci xolam rek bu ko defee kooku julli ga daan baax waaye nag di baamtuwaat julli ni moom liy wax tasa dud la tasa dud taral diine rek. jërëjëf sëñ Murtada ki day wax ne ñaari laaya yi lay laaj lu muy tekki suñu boroom day wax ne almaalu walbanuuna ziinatul xayaati dunya beneen laaya bi mooy fi muy wax ne waalamu annama amwaalukum wa awlaadukum fitna muy dafa bëgg daal nga leeral ko ñaari laaya yi lu muy tekki auzu billahi min asheytaan irajim almaalu walbanoon zinatu alxayaati dunia yàlla subhaanahu wa taala day wax ne nit ki bokk na ci ay waajtaayam alal ji nga xam ne moom la ko yàlla dénk ak njaboot gi nga xamante ni moom la ko yàlla dénk loolu nag lu waaja ci bokk na ci waajtaayu àdduna bokk na ci lu nit ki du tuwaletoo na ko yemale fa mu war a yem rek waaye bu dox digganteem ak li nga xamante ni mooy ëllëg bis penc loolu def naa leer na bi ci toppit wax la mu am waalamu annama amwaalukum wa awlaadukum fitna na ngeen xam ne seen alal yi ak seen njaboot gi fitna la ci yéen fitna mën nga ne mooy ixtibaar wala imtixaan la loo xamante ni yàlla moo ko teg ci yéen yàlla da leen koo jox ngir di leen ci nattu di leen xool ndax nit ki day jiital li nga xam ne mooy alalam ak njabootam mooy day jiital àdduna rek ci alaaxira ak yu mel noonu wala ndax nit ki bu ko yàlla joxee njaboot googu ak alal jooju boo gisee mu jiital alal dañ ne moo gën a bari fitna ci njaboot ndax yàlla ndax nit ki loolu lay jiital ba tey ba tax mu fàtteloo ko li nga xamante ni mooy boromam ak bis benci kon fitna la yàlla jox la ko fitna la mooy imtixaan la wala ixtibaar la yàlla dala ko jox ngir di la ci nattu di la laaj di la see xool ndax yow am nga xel mu doy sëkk ba xam ne njaboot gi ak alal ji yi la yàlla jox yépp ngir nga waaje ko la waaye nag wërta dox sa diggante lenn ak li nga xam ne mooy li la sa boroom digal donte ñaar yooyu neex na lool ci xol muy alal ak njaboot neex na lool ci xol beneen laay bii gën a dëggal loolu auzu billahi min asheytaani rajim yaa ayuha allazina amanu la tulhikum amwalukum wala awlaadukum an zikrillah beneen laaya ba tey yàlla di ci tagg ñu mel noonu ñi nga xam ne seen alal ak seen njaboot duxuñ seen digganteeg yàlla rijaalun ci laaya boobu yaa ayyuhal lazina aamanu laa tulhikum amwaalukum wala awlaadukum an zikrillah loolu kon lii gën a dëggal ci ne nit ki yàlla da ko jox alal ji ak njaboot gi rek ngir muy def waajtaayu àdduna ak waaye nag ngir da koy nattuwaale di xool nan lay àndeek ñooñu mooy ndax dana dox digganteem ak boroomam wala ndax dana dox digganteem ak li ko yàlla digal am déet allahu alam sëñ Murtada kii dafa wax ba tey ne xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne al mar'u ma'a man ahabba muy laaj xadis bi lu muy tekki xadis boobu leer na al mar'u man ahabba wala ci beneen xadis anta ma'a man ahbabta mooy nit ki moo ki mu bëgg rek mm, li ñuy wax almaiya ñoo koy def mooy ñooy nekkandoo kenn mënu leen tàggale xadis la bu am solo li nga xam ne mooy li ñuy wax almahaba di martaba bu kawee ci maratib yi nga xam ne moom la alqawmu di fonk lool bokk na ci kon lu am solo la lu ñu war a jiital la wares na ko am bu baax a baax li ñuy wax almahaba bëgg yàlla bëgg yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bëggit sa sëriñ bi nga xamante ni moom la yàlla la booleel moo dox sa diggante ak ñooñu loolu lu am solo la eh, ci xadis abdullahi ibnu mas'udin radiallahu taala nee na eh, nettali ne nit koo xamante ni dana yonente bi sallallahu alayhi wa sallam man de damaa bëgg diw ak diw ak diw waaye nag mënumaa àgg ci ñoom ba léegi ci ko yonente bi defe naa tontoo ne ko almaru man ahabba wala it ne ko anta maa anas ibnu malik ba tey nettali ne ne ko nit ki mooy kooku dana yonent bi man bëgg naa nit lool waaye mënuma àgg ci ñoom yonent bi ne ko yow yaag ñi nga bëgg rek yéen nekk mooy koo bëgg dëgg-dëgg ca bëgg yi wér rek àgg nga ci moom yéen a nekkandoo ci lu ngeen mën a nekk ñu ko noonu ba tey Anas ibnu Malik nettali ba tey ne nit ñëwoon na ci yonent bi laaj ko ne ko kañ la bis bis penc yonent bi ne ko lan nga ko waajale bis penc boobu balaa maa laaj kañ la am ndax xam kañ la xam lan nga ko waajale moo ëpp solo kooku ne ko du julli du woor du lenn waaye daal xam naa ne bëgg naa yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi waxu ko lenn rek lu ne ko anta maa man ahbabta kon nag yaa ñi nga bëgg yéen a ngoog yéenay ànd du ngeen tàggaloo waaye rek ñu bañ a loolu noonu rek ci kaw gi bàyyi ko noonu ne bëgg dara mooy bëgg naa noonu rek kon nag maa ngi li ma bëgg duñ tàggoo ñooy nekk ba faw loolu kat déggin la woo xam ne xaw naa gàtt a'uzu billahi minash shaytaani rajim qul in kuntum tuhibbuna allaha wa rasulahu fattabi'uni mooy ku bëgg yàlla bëgg yonent bi sallallahu alayhi nag kon topp leen ko bëgg dara mooy topp ko def ay ndigalam bàyyi ay tereem bu dul loolu day mal ne da ngay xaw a nax sa bopp mbëggeel dëgg-dëgg it laajoon waroon naa laaj bëgg dëgg-dëgg mooy lan waaye bëgg du li ñuy wax noonu rek wax ji ci la moo koy feeñal waaye jëf mooy li ko jiital waykat bi wax na wax ju am solo taasil ilaha wa anta tuzhiru xubbahu haza la amri fi lqiyaasi badiicu law kaana xubbaka sa law kaana xubbuka saadiqan la ataatahu inna almuhibba liman yuhibbu mutiicu yow mi bëgg nga yàlla yaa ngi mooy yàlla sabr la ba noppi di wane ne bëgg nga ko daan ne lii kat kiimaan dëgg-dëgg la sa bëgg gii nga bëgg yàlla bëgg gi nga bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg gi nga bëgg sa sëriñ bii nga doxal sa diggante ak ñoom su fekkonte ni dëgg la danga leen topp ndax kat innal muhibba liman yuhibbu muti'u defe naa loolu mu woy moo daa way aaya jooju ma wax léegi rek kuntum tuhibbuna llaha wa rasulahu fattabi'un kon bëgg yàlla ak bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa nag mandarga mi mooy da nga leen di nangoo topp bëgg li nga xamante ni bëgg nañ ko wallahu ta'ala jërëjëf sëriñ Murtada kii ba tey di laaj beneen xadiis bu wax ne law yaclamu almaaru bayna yaday almusalli maada alayhi min alismi la kaana an yaqifa arbaina xayran lahu min an yamurra bayna yadayhi mu ne dee laaj xadiis bii lan lay tekki xadiis boobu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am loo xamante ni lislaam dañu koy tere mooy kuy julli kenn di jaar ci kanamam loolu dañ koy tere waaye nag kii jullit am na luñ ko digal mooy na wut li ñuy wax sutura wa sutratun li muqtadi sut saatir kiñ ko bëgg ci moom mooy imaam ji jiite wala kenn kuy julli damaa juum mais muqtadin du ko def damaa juum imaam moo koy def wala kenn kuy julli euh, ni muy demee comme xam ngeen ko lu set lay doon lu laab tolloog ziraa ci li gën a siiw am na ñu wax lu gën a bari am ñu wax lu gën a néew bañ laa sori lool bañ a sori fi ngay sujjóote nekk lu sax loo xam ne du nekk di daanu walla yu mel noonu bu mu nekk lu lay jax-jaxal lu rafet bopp wala yu mel noonu nit mën naa nekk sa saatir mën naa toog wan la ginnaaw nekk sa saatir mais nag bu mu la wan kanam ndax bu la wanee kanam xëy na dalay lay jax-jaxal wala yu mel noonu loolu lépp li ñu ciy dégg mooy bañ ku jaar ci kuy julli kon kuy julli am na xarim boo xam ne kenn waru fa jaar mooy li nga xamante ni moo nekk ci kanamam kenn waru fee jaar moo xam imaam ji julli wala kenn ki julli maamum nag day mel ne imaam ji moom benn ñu ne mooy saatiram wala mu sutura si imaamam mooy saatiram moo tax jaar ci kanam mu sàppe yoo xam ne ay maamum lañ da gis ñu koy tere léeg-léegi booy fay jaar ñu nar laa téye waaye ci li ñuy bañ kenn kuy julli nga jaar ci kanamam di naafila wala mooy julli farata wala imaam nga jaar ci kanamam xëy na boog wala nga jaar ci diggante imaam ak sàppe su njëkk si su fekkee dañ ne imaam mooy saatiru ma imaamu mi ca dañoo wute ndax imaam mooy saatiram wala saatiru imaam mooy saatiru maamam kon loolu am solo la wa asima maarun lahu manduuxatu wa kamusallin taaradal Cheikh Xalil wax ku romb ci kanamu kuy julli ci am manduuxa mooy am faneen foo mënoon a jaar am nga bakkaar ki nga xam ne mooy julli def li ñuy wax taarud mooy dakk ci kanamu yoon wi nga xam ne fa nit ñi jullee fa nit ñi romb nga taxaw fay julli loolu ba tey amul solo dañ koy tere nag amul solo yonent bi sallallahu alayhi wax na comme ni nga ko waxee law ya'lamul maaru bay bayna yaday al musalli maza alayhi la kaana alayhi an yaqifa arbaina xayran lahu ku xamoon li nekk ci romb ci kanamu kuy julli ku xamoon li la ciy fekk lépp ci ay sanctionné ci ay nattu ci ay mbugal baax na ci moom mu taxaw lu mat ñeent fukki fan wala dem koy tekkee wala boog diir bu yàgg xaara ba mu julli ba noppi mu dem moo gën loolu kon nañ koy moytandiku baax a baax ñiy julli moo xam imaam bi julli la ci jàkka wala fu dul jàkka moo xam kenn ku julli la nañuy taxaw ci ginnaaw keno yi bu dul ginnaaw keno yi ni nañuy wut dara samp ko ci seen kanam ca loola na dëppoo ci sàrt yi nga xam ne wax naa leen ko léegi fenn rek lañ ci settee koo xamante ni yaa ngi jullee ci masjidul xaram mooy màkka ak yu mel noonu ku ne xam ngeen ni foofu na mu mel ak mbooloo mu bari mi xam naa moo tax ulama yi seetee ci ne kooku mooy ki nga xam ne texateur dana jafe ci moom daganal nañ it kenn di jaar ci kanam wala yu mel noonu nit ki noonu ba tey ñiy def tal bi ñiy wër kaaba gi settee nañ leen ci ndax foo leen fekk ñi ngi nekk ci kanam kuy julli waaye loolu day delluwaat rek ci masala mi ñu waxoon léegi ak darura ak darura tubihul mahzura mooy ñàkk pexe ak jafe moo tax ñu may leen ko nañu moytandiku loolu bu baax a baax allahu taala jërëjëf sëriñ Murtada sëriñ alxaaji kii dafa wax ne kiy jàng alxuraan ba àgg ci barabu sujjóot ba sujjóot gan ñaan lay ñaan ci diggante boobu mu sujjóot kiy jàng alxuraan ci waxtu wu ñu war sujjóot mu àgg ci fa mu waree sujjóot boo xamee ne sujjóot na ci boppam du bokk ak sujjóot yi nga xam ne moom lay sujjóot ci bu bu dee bu dee bu dee jàng alxuraan rek bu dee bu dee nafila sujjóot boobee ci boppam ak toroxlu la bu jëm ci suñu boroom di ko wan ne ko nangu naa ne yaa bind alxuraan te yow nangu naa ne it ci boppam yaa jàngalu alxuraan yaa yow yow yaa yaa def alxuraan yi muy li nga xamee ne mooy sa lay bi nga dox diggante ak sa bindeef yi boo xamee ne ma nga sujjóot nag nu mu toroxloo ba mu dëppee jéem ja suuf rek subhaanaka rabbi inni zalamtu nafsi yeeg asaluka an taxfir li xatiyaati yawma diini yum ci wax yum dama rek noonu la war a de waaye bokkatu sujjóot julli jërëjëf sëriñ alxaaji sëñ Murtada kii di laaj ba tey ci xadiis dafa wax xadiis bi yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne fa xaqukum alayhinna an laa yutina furashakum man takrahuun wala yadanna fi buyutikum liman takrahuun muy laaj ba xam xadis bii lan lay tekki xadis boobu defe naa leer na loolu xam naa ki koy laaj bu xamee li muy tekki rek na ko xam lu ñuy sara wala lu ñuy kii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jigéen ngir nu mu war a toppee borom këram ak nu mu war a mën a boñ a mooy ay ndigalam isa salatil xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dana wax ne isa salatil maratu xamsaha wa saamat shahraha dem na ba ci mujj mu ne wa ataat zawjaha mooy nit jigéen gi bu topp bu defee mbooleem li ko yàlla waral lépp muy juróomi ponk lislaam yi dolli ca topp boroom këram dana dem àjjana kon jigéen dafa war a borom këram waxaate ne bu fekkoon ne dinaa digal kenn muy sujjóot dinaa digal jigéen muy sujjóotal boroom këram ak yu baree baree bare wane ne it lu ko yàlla gërëm gërëm faw boroom këram gërëm ko baax na ci wala yàlla ngërëmul yàlla loolu du am njariñ ci loolu ci la yonente bi sallallahu alayhi wasallam du ne defe naa xadis bi mi ngi bokk ci xutba boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jox jotul wadaa defe naa xutba boobu bu siiw bi mi ngi ci wala boog lu ko niru mi ngi ci wala boo xadis bi mi ngi ci sax boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy bi muy dénkaane wax na lu bare bare xam nga mooy dénkaane bu mujj boobu foofu la waxoon al yawma ak al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati foofa ci la xëy na defe naa mooy message bi mu mujjee jàllale nga xam ne day mel ne ci la mujjee waxee ak nit ñi bi mu wax ba si ci jigéen ñi lu gudd gudd la wax ci ñoom bokk na ci istawsu bi góor ñi la njëkk a yedd istawsu bi nisaay xayran yéen góor ñi nag maa ngi leen di denk bu baax a baax seen jigéen ñi de leen góorgóorlu ci ñoom bu baax a baax na ngeen xam ne kat yéene leen jël bi amaanatullaahi ci ngeen leen jële yéen daganal ngeen seeni pay ba dagan ngeen di tëdd ak ñoom ak lépp ci loo xam ne yàlla moo ko wax ndax takk bu ngeen leen takk moo tax loolu dagan leen kon nag na ngeen ragal yàlla ci jigéen ñi ci la demee demee dem ba ci biir ne di wax ak góor ñi dem na ba ci ak jigéen ñi ne leen nag yéen jigéen ñi na ngeen xam ne na ngeen góorgóorlu ba nag bu leen wuteeg seen jëkkër ci lenn ba ci sax seen kër képp koo xam ne seen borom kër yi bëgguñ ko na ngeen fexe bu mu fa dugg lu ngeen jaxasoo jaxasoo ak moom. niki noonu ba tey koo xamante ni seen borom kër bëggut kooku ba tey bu leen ko may sax mu dugg ci seen kër yi loolu kon nañ ko sàmmanteeg moom ba mooy jigéen rek lépp lu naqari borom këram bu mu ko def ba ci sax kum xaritool koo xamante ni. boroom kër boroom këram bëgg ko na fexe bi bu mu jaxasoog moom wala boog bu mu accès bu mu ko indi bu mu def leen lu neexut boroom këram daal loolu rek lay tegtale bu mu ko dugal këram bu mu ko seeti ndax loolu lépp ngir bëgg a dab bànneexu boroom këram rek la wallahu taala alam jërëjëf kii day wax ne ger mooy lan ak lan mooy ab àtteem jar amut solo defe naa moom la ñuy wax neexale wala yu mel noonu rek donte bari na lool baaxut dañ koy tere raswa wala ñu koy tuddee suxtu bu la neexee am na ñu koy tekkee yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na laana allahu raasi wala murtasi ne yàlla rëbb ki nga xam ne mooy joxe neexal boobu ak ki nga xam ne moom lañ koy jox am na beneen riwaaya ca xadis li ñuy wax arraïs boo xam ne da ko ca boole mooy ki dox ci diggante bi courtier bi nga xam ne mooy dox sa diggante nit ki ak kooka lu baree baree bare nag la daanaka ma des nañ rek am na bihil balwa naqari naa muccit jamono ji bari na waaye nañ koy moytandiku bu baax a baax ndax dafa am yoo xamante ni nit ki da ko war def rek ngir yàlla loolu la ñuy wax euh, zakatul jah man la may jid maa yatasaddaq fal yatasaddaq wala bi jaahihi mooy intervention nit ki ku am daraja kilifa nga wala am nga cër wala yu mel noonu war nga fexe di defi intervention wala yu mel noonu rek ngir yàlla ndax dafa am yoo xam ne di ko def moo gën def ko ngir yàlla noonu rek bëgg ci tiyaaba yi ngëneelu yàlla ak yu mel noonu fa ngay liggéeye man nga ko fa bureau bi nga yor nit ki di fa bëgg dara defal ko ko rek ngir yàlla ki lay lijjantiloo dara lu jafe ca mënu ko nga mën ko lijjantil ko ko rek ngir yàlla waaye nag di ko ci teg lenn loo xamante ni nger la lu mu lay neexal wala yooyu loolu baaxul dañ koy tere donte ulama yi nag nee ki bu fekkee am na aq ju aju fenn takk mu wóor ko ne loolu danañ am bu baax a baax mënu cee jot mukk ci àdduna lu wut dafa ger nee nañ am na ñu ne settee nañ masa foofu mu jël fa neexale fa lemi muy yéene it mooy yé du yéene ne day ger waaye nag day yéene jot ak xam te ki nag war naa sonn ngir mën a jot ci ak xam jooju loolu lenn ci xolamaa yi surtout yenn ci mu mutaaxiroon yi fatwaa nañ loolu ala kulli xaal allahu taala alam sëriñ alxaaji kii day laaj idda mooy lan la ñuy wax idda idda yidda al idda wa yidda day mooy yaar la jigéen joo xamee ne mi ngi doon sëy ñu wucc ko jigéen joo xam ne jii mu ngi doon sëy boroom këram faatu jigéen ji nga xamee ne nag da doon sëy boroom këram fose ko war naa toog ñetti weer yu ma sëkk yoo xamee ne du ci sol lu rafet du ci xeeñ laaj koloñ du ci génn di wane boppam boole ko jaamu yàlla gu sell loole ñu koy toogloo ak ci ñetti weer yooyu du ñooy jublu mahabba bëggayal gi nga ne moo nekkoon seen diggante ñoom ñaar mu mën a rikk ku ci seeni xol mooy tax nag saa soo xamee ne idda ji mëtagul mënees na koo def muraajaha mënees na koo fayliwaat ndax bu lu tax ñuy fayli ci góor gi lay doon wala ci jigéen ji jigéen ji dana dem ne man de li tax ñu bàyyi ma maa ko defoon te léegi maa ngi koy tuub te man daal wax dëgg asuma sa ànd ak moom ba nu bokk jaamu yàlla góor gi dana wax ne mankat kat ala kuleel mer ma jàppoon ba tax ma fase woon ko waaye fase googe ci boppam du dugg ci saa kon dama ko bëgg a fay li fii ñetti weer yi jeex nag mën naa mën na koo fay li fay li gi nag day doon lu mu wax dikk naa ngir siwaat la ci sama kër nga bokk ci sama ñooñ te it loolee ci boppam nekkoon suñu diggante am mer la waaye ci boppam maa ngi koy tuub te fas yéenu àndaat ci biir loola su ko defee nag ba jigéen ji fekk ko ca mën naa dellusiwaat te disu ko waat waaye saa soo xamee ne idée ji jeex na nag ba beneen góor gu mën a doon bu ko neexee ñëw ci moom kooku ci boppam nag maanaam masalan des ko koy mayaat day defaatug can day yoon yoonu ku faatu nag ci boppam bu fekkee as gor la ñeenti weer ak fukki bis euh, fukki fan lay doon ci ban gu gën a raw nag ban gu ban lu googee ndax kee xëy na leen mën na génn di doxe aajo mooy li deme noonu waaye kii nag ci boppam dafa war a def tax kook këram fam fam fañ ko toog toogloo woon mu toog fa loolu nag am na ay mbir ndax soo xamee ne jëkkër ji ci boppam moo moo mën kër ga ci boppam moo mën naa dex mën naa des ca kër ga saa soo xamee da ko luyee wantu luyaas bi mat na lu demee noonu kooku it mën na cee mën mën naa continuer ca kër ga saa soo xamee ne nag loolu lépp amu ci woon kër gi ci boppam dañ ko luye woon te luyaas ba jeex na te boroom kër gi ci boppam soxla na këram kooku nag daa war a génn fu mu njëkk a dem nag mu toog foofa ba euh, teñji gi mat mu mën a libre ci mën a demaat gën góor yor ko waaye nag idda ci boppam moom li li tax suñu borom def ko daal mooy da ngay rékki sa xol bi nga xam ne moo nekkoon ci góor gi diggante bi nag ci ñetti weer yi ak rëcc mën na ci am wi wicc googee nag ci góor gi jigéen ñi ko mën a doon bu ñu àndaatee xëy na la leen tàqale woon duutu mën a te ak seeti bi nga xamee ne nag kii moom day teññi moom kooku moom kenn waru koo wax dara kenn waru koo e, e, junj di dara xanaa kay may nañu daal góor gi bu fekkee ne gis na kii mu ngi teñji te boppam moom toogul te bëggutit maanaam basal ma jigéen ji di ko faat mën naa dem nuyu ko bu ko nuyoo ne ko ah yow de da ngay teñji muy sulaa wax dara waaye lii maa la ko dimbalee loolu nag bu ko defee dana dem ba boo xamee ne moom muriw muri na yit nga gis gënee góor di dikk di ko bëgg ak yooyu mu naan ko damaa sonn nag dama wérut ak damaa bëgg a jaam yàlla fekk waaja lay nekk soo xamee ne loolu la demee nag ci boppam waaye nag saa soo ko waxee njéeméer ne ko yaa ngi ci ëdd yi waaye dama laa bëgg a takk kooku ci boppam dis la ko may ba faw bu ñu la ko mayee ci biir loola yët maanaam masalan sëy ba araam la ci gàttal. jërëjëf Serigne Alxaaji laajam bi mu ci ci loolu la aju muy jigéen ji nga xam ne dañ koo fase te jotuñoo séq ak moom dara ndax war naa idda wala déet jigéen ji nga xam ne dañ koo fase te jëkkëram sëyut ak moom toogul woon mu ab ci laal moom ba neexu ca defu ci dara kooku ci boppam bu ñu ko fasee ci fase boomee nga xam ne dara jaaru fa ci bànneexu jaaru fa dara andiwu ko fa kon mën naa bañ a mën naa bañ a iddebu ci boppam rek su toogee ay fan rek ba nga xam ne kee du waxaat dara rek mës na ko may keneen tudd nañ ne ngirum jigéen dafa am fii ci jataay bi koo xam ne kii bi ma toogee fii dafa ma laaj lu jëm ci soxnaam soo xamee ne dafay faral di am mbërëg bu dee ci koor geek yu mën a doon maanaam masalan daal bu toogee ñaari fan mbërëg mi dog bu toogaatee laneen mu dellu siwaat kooka la mu war a def moo de nay lim fan yi nga xamee ne moom lay laab bu laabee bu nekk rek na sangu di julli di woor saa soo xamee ne dikkaat na it ci boppam muy lim fan yooyee di ko di ko seet soo xamee ne diggante bi nag mat na fukki fan ak juróom diggante bi lu fa tontu woon nañ ko fi sax diggante bi sax bu fekkee mat na fukki fan ak juróom kon mbërëg bu yeesaat la saa soo xamee matu fukki fan ak juróom nag kon dañuy jàpp ne moom moo bindoo noonu waaye benn mbërëg bi benn rek la bu dee loolu lu demee noonu nag kon ci boppam dafa war a continuer di laablu di xool lu nekk ci moom boo xamee ne dara nekkul ci moom mu mu laab julli woor saa xamee ne daraa ngi ci moom wala mu sikk sàkk ba xam lu mu doon ndax derati hayd ak derati istihaada dañoo def yoo xam ne yu ci nekk luy génn ci kanamu jigéen la waaye saa soo xamee dafa génn nag jigéen ñi moom mën naa xàmmee lii istihaada ak lii xayd su dee istihaada nag dereti jàngoro lañ koy wax kooku du tee moom day woor di julli di def lépp ci gàttal noonu la jërëjëf sëriñ alxaaji seen murtada kii dafa wax ne kañ yi xaraam ci ab jullit mu takk mbokkum nàmpalanteem ak ndax ak ndax dagan na mu saafanteek moom wala déet waaw <coughs> yàlla subhaanahu wa bi nga xamante ni mi ngi araamal ay nit ñoo xamante ni dëgganut ñuy takkante bi mu waxee xurumat aleykum ummahatukum wa banatukum wa axwaatukum wa amaatukum bi mu jeexee dafa indi geneen façon mbokk goo xamante ni dañ ci araamante donte ak bokk geneen mën na fa bañ a am ci la waxee ne wa axawaatukum min arradaa mooy nit ki seen mbokk yi nga xam ne xëy na bokk leen ndey bokku leen bàyyi waaye da ngeen a nàmpandoo nàmpandoo nag niñ koy defee bari na génn jigéen bokk boole leen nàmpal mën naa sori sax léeg-léegi wala kooka nàmpal ku la nàmpal kooka dafa araam nga di ko takk na nga xam ne sa mbokk la rek nim la araame woon bu ngeen bokkoon ndey ni la araame bi ngeen bokkee kenn koo xamante ni moo leen nàmpal yonent bi sallallahu alayhi wasallam day wax ne yaxrumu min arradaa'i ma yaxrumu min na nasab lépp loo xam ne dana araam ci askan dana araam ci radaa ci li gën a bare rek seeni masala li ñuy wuute neew na lool lépp lu araam ci bokk rek danay araam ci daa xaaliban ci li gën a bare loolu mooy atteeb kon mbokk moo xam ne da ngeen a nàmpandoo araam mook sa kii ñooyam bu fekkee dañ ne dagat na la nag nekk noonu musaafaxa joxanteek moom loxo dara neewu ci gis naa ñoo xam ne sax ni ñu xamante koo xamante ni nàmpandoo nañu moom déet da ngay gis ñu joxanteek moom loxo foo gisee ñenn ñi leen ci ulamaa yi sax ñuy joxanteek ñenn ñi loxo rek li ci gën a bari bu dul mbokk moo xam ni ñu bokk ndey wala ñu bokk bàyyi wala yooyu xamal ne radaa moo dox seen diggante lu xaw a doy waar la nag nàmpalante donte sax ñun du suñuy du àtteeb buñ fonk ñun lool lool waaye ku koy defit na ko bàyyi xel bu baax a baax ndax li ci mën a juddoo bari na moo tax ku juum ba soxnaam nàmpal doomi jàmbur na bind loolu date ko ca seereel ko ay nit ba nga xamante ni bu yàgg-yàgg eh, rek lu wërta mën a am du am seen diggante ndax ñaari nit danañ nàmpandoo kenn du ko xam ñu dem ba doon dooni mag seeni doom bëgg dencante wala yu mel noonu ca su sëy bu mel noonu lu doy waar la lu mu yàgg-yàgg buñ ko xamee donte dem nañ ba am ñeent fukki at it dañuy tas sëy boobu ci bis boobu ndax ñoom ñaar ñuy dëggalante wuñ kon radaa daal lépp luy araam ci askan rek da ciy araam ci radaa comme ni ko yonte bi wax rek yaxaru min radaa ma yaxaru min nasab koo xamante ni nag wér na la péng ne nàmpandoo ngeen kooku dagan na nga jox ko loxo bu baax a baax comme ni nga xamante ni dagan na nga jox loxo sa mag wala sa rak ju jigéen joo bokkal ndey wala joo bokkal baay Eh, na am seere rek moom nàmpandoo boobu bil adli wa adlatayni am na ñu ko wax tasbutu bil adli wa adlatayni am na ñu ne benn adl moo koy saxal am na ñu ne ñaar ñu jigéen ñu maandu ba tey bu ñu ko seeree baax na wala mu siiw lool ba nga xamante ni ñu baree baree bare wax nañ ko wala yu mel noonu nàmpandoo yi gi nga xam ne moom lañ ci reconnaître nga xam ne mooy tax dara araam moo yan yan surul xurma mooy loo xamante ni ci jamono yi nga xam ne xale bi bu naanee meew mi dana ko amal njariñ ci ñaari at yu njëkk yi waxuñ nag nàmpal mag wala yu mel noonu loolu amul benn njariñ nàmpal mag amul njariñ ci mashhur ci wax lépp ci borom xam-xam yi ridaul kabir amul njariñ laa yansurul xurma donte sax sayyidatuna Aïcha radiallahu taala anha wuute na ci masala moom wallahu taala alam kon daal li tax nàmpandoo mën a nekk mooy gone nàmpal gone moo tax ñuy wax waaye mag amut njariñ mooy loo xamante ne dem na ba jéggi ñaari yi ba nga xamante ni xale bi soxlaatut soomu foofu dara kon radaa boobu li gën a wér mooy laa yansurul xurmata allahu alam jërëjëf kii ba tey dafa wax ne koo xam ne day commerce ci alal ju araam alal joo xam dañ koo sàcc mbaa ñu siif ko mu ne kon ndax kon bénéfice bi mën na koo jël bu fekkee ne jël na cosaan yi delloo borom maanaam daa sàcc daal téeméeri junni dem liggéey ci am ci bénéfice mu ne ndax kon bu delloo téeméeri junni yi bénéfice ba ca des dagan na mu jël ko wala déet allahu alam waaye rek li ñuy wax ci fëkk wala nga sàcc wala yu mel noonu da ngay delloo loola bu fekkee fekk nañ ko yow bu dee loo xam ne am na jëmm comme nga jëloon tappi nit kii dañ koy nangu ci yow delloo ko ndax boroom moo ci gën a yeey bu fekkee leneen la dañuy wax ne da ngay delloo qiimatul muqawwam wa mislul misli bu dee lu ñu xayma la nga joxe xayma ja bu dee misli la comme saa koy ceeb nga jël lu ñu toll dem delloo ko xëy na nag kon dañ ci dégg ne bu doon lu mel ni xeeti xaalis la ak yu mel noonu nga jël ko mooy nga delloo nga kooka la nga xamante ni moom lañ jëloon ci moom bénéfice ba ci des donte cosaan li dëgganutut waaye yow yaay ki nga xam ne yaa ko moom donte nag masala masalatu xilaaf la baynal ulama defe naa nag ñi koy bañ it ñu baree bari dañ ci li ñuy wax alwara rek te sukkandikoo mooy ak sàmm wala yu mel noonu ndax inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban mooy bañ alal nga sose ko rek loo xamante ni dëgganut moo tax ñu lay digal lu mel noonu nga di ko sarxeeg yu mel noonu bénéfice yooyu waaye ala kulli xaal kooku moom moom moo ko moom lu ci mën a xew ginnaaw bi nga xamante ni delloo na cosaan la ca borom delloo na ko lu mel ne lam jëloon ci moom te ci yàlla bu baax a rek na jërëjëf kii tamit dafa ne ku def ab bakkaar xamu ko yëgul bi bakkaar bi def mu ne ndax kon mën na koo tuub wala déet. nit ki lu mu moom kenn attewu ko ci lu mu xamut donte nag nit kii di war naa dem xamlu ji waaye rufi an ummatil xata wa nisyaanu mastukrihu alayhi nit ki noonu ba tey réer leen na ci borom xam-xam yi aj nañ ko foofu mooy nit ki lu mu xamut waaye nag lu mu xamut ca doon loo xam ne xëy na ñàkk gee xam lu waroon a mën a nekk daal la mooy nekk na foo xam ne mënu faa xam loo wala yu mel noonu waaye nag nit ki ku xamut dangaa war a xam lu ji loolu moo gën surtout li nga xam ne aju na ci sa diine laa li ko borom laxdar yi di waxee rek laa yaxlu in fi'lu an yaf'ala fi'lan xataa ya'lama xukmallahi fihi nit ki dëgganut muy def lenn ndara dafa xam ne ci yàlla àttewoo lu mel nii nag bu amee nit ki toggoo bàkkaar boo xam ne xëy na xamu ko woon ginnaaw bi nga xamante ni dem na ba yëg ko ala kulli xaal na tuub rek tuub moom taay taa'ibu min zanbihi kaman laa zanba lahu man taaba taaba Allahu alayhi ca jéem a xam lu ji nag bu baax a baax ndax yu mel noonu bañ koo dalate ndax am na masala yoo xamante ni kat yu'zaru fihi bil jahl waaye bari na masala yoo xam ne kenn du ci jéggal nit ci réer wala yu mel noonu léeg-léegi ndax xëy na da ko dafa doonoon loo xamante ni bu ko xamutit léeg-léegi donte sax lu ñu fayeeku la léeg-léegi ñu di ñu ko ci topp daal ñàkk koo xam du tax ba atte ba du aju ci kawam léeg-léegi moo tax rek nit ki na góorgóorlu jéem a xam lu ji sàkku ci xam-xam fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun lu mel noonu nag bu ko dalee ba mu weesu nga xam ne beneen solution amatu ci muy loo xam ne faat na nag ca kenn mënu ko dab dabaatal lay doog a mën a tuub waaye nag mbir léeg-léegi dab dabaatal ko dina mën a nekk mën ngaa jël yëfi jàmbur wala nga tooñ tooñ goo xam ne bi nga demee ba xam ne ak tooñ la wala loolu kenn waru koon a def dab dabaatal ku weesoogut su boobaa da nga koy delloo ji bu dee yëfi jàmbur yooyu jëloon wala bu dee lu aju woon ci kenn demal delloo ji ko koo tooñoon demal jéglu ji ko boo pare àq keneen bu ci amee nga dem fay àq jooju ba noppi boo noppee nag ba dara seetu la sa diggante yàlla nag ngay doog a tuub li ngay tuub mooy li nga defoon ca yàlla digliwu ko ca it nga wane ne da nga ko xamutoon su boobaa it nag inna allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahhirin ca it dañuy wax ne attaibu min zanbihi kaman la zanba bala bàkkaar nag lu mu réere it yàlla moo gën a mën a jéggale lu mel noonu jërëjëf sëriñ alxaaji kii dafa wax ne koo xam ne daa sàcc alal jënd ci ab téere ndax bàkkaar bi ci moom rekk la yam moom ni ko sàcc walla ku jàng téere bi rekk am ci bàkkaar bi walla déet xam-xam de moom day loo xam ne dafa rëy loolu te it loo ci amul da koy jëggi te sëñ Tuubaa wax na ci masaalikul jinaan ne koo ko mën a bind wala muy liggéey yàlla bañ yoole ko ko wala nu mu ko mën a amee nu mu ko mën a amee joojee nag moo tax na kon fexe ba am xam-xam bi daal moom dara nekku ci te saa soo xamee ne kenn ka jël na ci xam-xam booba koo kooka ci boppam it dana am tuyaaba xam-xam moom day loo xam ne lii ci boppam ka xam moom moo ko moom kii xam ba noppi nanguwu koo joxe it ku ba yomal xeyaamee des na ko laab laabi sa war a kon nag lu jëm ci nag loo xam ne tax na nga am téere bi daal man mii daal xam naa ne ku ma ci gisoon sa bi ma ko jekkoo te uma ko danaa ko jël te du may jàpp ne du ma ci topp jërëjëf sëriñ alxaaji ba tey it kii dafa wax ne suñu alaaji ki daa wax ne ku fase soxnaam ndànk kii daa fase soxnaam ndànk wax ko ci kaw daal waaye nag amuti seere kenn fekkuwu mu ne ndax fase moom dana tàbbi wala déet fase moom day ñaari fase baneen nag fase mu yar fase mu yar daa ko koy rek daa bëgg moom mu tiit ne ko maam sëñ ma mënuma laa ñàkk bul waxatee lii lii su ko fooyee nangam ak nangam yooyu fan yooyu bu ko defee ginnaaw moom waxu ko woon kenn nag ci boppam su ko bëggee delsi nag ko la man dama doon ko dama doon caaxaan rek waaye nangam ak nangam waaye fase nag gis ko war a fooyee ndax sëñ sëñ Tuubaa wax na ci waru na fiis ne ñaar ñii war nañ leen a yar kii fooyee fase ak kii fooyee ak ngoreel war nañ leen yóbbu ci buntu jàkka ji ñu dóor leen taadibuhum alal imaam yi dóor leen bañ ne mbëtt ñun ne lii ñu doon def ci boppam da yàlla ci boppam sax terewu ko waaye ab xadul xalaali E ilallaahi wa talaaqu kon nag parce que nag bi ginnaaw ma koy xumtoo wala yu demee noonu it ci boppam mën naa doon loo xamee ni ci boppam nag maanaam masalan waris na ko mën a dëggal sax ndax yare ko ko kaneen di ko bañ koo def fii bi fi suñ lu nekkee e, foofu laa yem am na koo xam ne kii dafa fase woon ba noppi ba yekk ñeent fa nag yooyu mu bëggu koo fayliwaat mu ne ko ah yow sëñ diw nag yaa ko waxoon di ginnaaw yaa ko waxoon nag kon léegi sax na ba noonu lañ tàggalikoo kooku nag kon matul di foyee ku koy foyee ku ne war nañ koo yar loolu la ñu wax. jërëjëf ba tey ci loolu lay aju dafa wax ne ki def loolu ba noppi ndax mën na koo li ci kon mën na koo jëliwaat mu ñëw naa da ko façon ndànk rek kenn déggut. ni ma ko waxee woon bu fekkee idda jeexul mën na koo fayli saa soo xamee ne idda jeex na it ci boppam nag da koy takkaat takkaat goo xam ne gii nag danañ ko ca teg loo xamee ne ñëpp danañ xam ne moom. dafa ko woon tax mu fase ko noona di ko fayante yëfi faan yooyu kon nag léegi kii dëgg-dëgg lañ ci mënu koo ñàkk des na ko ca teg loo xamee ni ci boppam mooy ëpp lam ca ñàkkoon bu njëkk ndax keneen bañ ko foyeete fay daal la ñuy jërëjëf ñu ñëwaat ci sëñ Murtada dafa wax ne ki fase soxnaam te fekk mu yoroon ay bagages ci kër gi bagages yoo xam ne ni mu góor gee ko jëndoon laata mu koy takk mu ne ko ndax bu fasee soxna si. soxna si buy ñibbi ci këram day yóbbaale bagage yëpp wala dafay bàyyi bagage yi nga xam ne soxna si da fekk ndax léeg xam nga léeg-léeg nga yor bagage ci kër gi sa néeg dem takk soxna indi soxna si jël bagage yooyu muy laaj ba xam ndax kon boo ko fasee buy dem day yóbbaale bagaas yëpp wala day yóbbu yi nga ko jëndaloon. waaw comme ni sëñ bi waxee léegi rek fase amut solo. ab abwadul xalaali ilallaahi talaaq yi dagan yëpp yàlla fase la ci gën a bañ kon waxee na ñàkk pexe rek war a tax nit ki di ko def fase nag ni mu méttee ak ni ko faral di waxee ne fase fu mu amee rek dañuy jigéen ci perte ni ñu koy wala di waxee na ba lislaam am na loo xam ne sax da ko bëgg mooy soxna si soo xamante ni bàyyi nga ko defe naa sëñ boo wax na ko léegi nga def li ñuy wax mat mutaa yàlla wax na ko ci alxuraan na alal muusii xadruhu wa alal muqtiri xadruhu mooy soxna si boo ko bàyyee war ngaa jël dara loo xam ne da nga koy neexale ngir def li ñuy wax jabru kasar talaax ndax fa say xaw naa métti tuuti comme l'islam nag loolu la diglee bëgg nga mosal ko dara buy dem yaakaar naa di xëccoog moom ay bagaas amul solo gënut loolu loolu bokk na ci liñ ci war a déggee ci loolu ayo bu fekkee nag am na ndax nag loolu mooy li gën rek waaye bu fekkee am na soxna si ñëwoon na sëy si àndaale lenn ci ay bagaas xëy na mal ne da ko fa àndaale bu fekkee ba ñu koy àndaale moom am nay seere wala urfu dëggal na ko aada mooy xam nañ ne kii bagaas yi mu andi moo ko moom fa mu dëkk réew mu jógee rek la am comme sox ku jóge woon siin ñëw yor bagage siin waa ñu wóor ko ne moom rek moo fi àndaale su boobaa moom àtte bi dañ koy jox rek moo koy jël yóbbu ci jëlul benn sikk sàkk jërul sax muy dem ca xaadi bi mu di ko àtteel na ko jël yóbbu bu fekkee tas na bu fekkee nag ginnaaw même ginnaaw bi loolu mooy njëkk bagage yum àndaale wane ne moo ko moom njëkk nda du ko fa àndaale woon bu fekkee am na teg lu koy tegtale li koy tegtale moo xam seere koo xam ne seere loon na ko ne lii maa ko moom wala ki mu ko jënde woon ci moom wala urfu ko ndax urfu mooy aada dana dëggal nit léeg-léeg wala urfu ko shaahidi xam nga nit ki da nga ko gisee noo xam ne da xam ne bagage yi wër na la ay bagage la moo ko mën a jënd sax fa mu côté wet ga mu jóge fa la am su boobaa dañ koy jox rek bu fekkee yooyu yëpp amul na ginnaaw soxna si ak boroom këram tàggoo tas xëccoo bagaas yi kii ne maa moom lii kii ne maa war a moom lii su boobaa am na noo xamante ni noonu na leen boroom xam-xam yi attee nañ xool jigéen lépp bagage yoo xam ne bagaas bagage jigéen la moo ko yeyoo nga ne jigéen a ko baaxoo moom moo ko baaxoo jënd moom lañ koy bàyyee góor gi bagaas yi nga xam ne ñaareel góor moo ko baaxoo nag moom ñu bàyyee ko ko waaye nag dañ ne loolu léppit bu fekkee xamoon nañ ne soxna si nekkutoon ku yoru dara waaye soxna soo xam ne wóor na le ba mu fay ñëwit indaalewut lenn noonu la tolloon yoru dara su boobaa dañ ne bi ñu ko yewee muy dem waruñ ko dëggal di ko bàyyi muy yóbbaale lenn lu ëpp sa eh, lu tollook tolloog xaymay sadaqul muslim mooy lu yem lu tolloog loo xam ne joxoon nañ ko fi ba mu fiy ñëw rek ala loolu mooy masala moomu moom la Cheikh Adda di way ci nazmuhul naan wa fi mataail beyti yaxlifu ala ma bin misa yaxtasu urfan kalxula ma lam takun maarufatan bilfaqri fala tujaawizuha almisli wa xalafa alxaliilu fi ma yantami ila alrijaali caadatan aw lahuma wa qawluhu wadiicatun cindi iqbali ka qawliha hiya walakin taxlifi wa ma bi xawsi waaxidin fa hiya la wa in li muddacihi curfun jacalahu mooy bagage ci kër gi bu fekkee dañ cee wuute ñoom ñaar soxna si na giñ lépp loo xam ne jigéen ko jagoo mu ne moo ko moom na giñ ñu jox ko ko niki noonu ba tey góor gi noonu comme ni ma ko waxee rek feek soxna si nekkul koo xam ne kuñ xamoon ne kuy ñàkkale ku yoru dara su boobaa nag kenn mënu koo dëggal ci muy yóbbaale lu ëpp sadaaxul muslim sadaaxus am kemam loo xamante ni ne da ko yor waaye wane ne moomu ko woon waaye dañ ma ko dénkoon nañ nangu li mu wax bu ko góor gi waxee daañ ko nangu du giñ waaye nag bu fekkee jigéen gi moo ko wax ne maa ko yor waaye dañ ma ko dénk danañ nangu li mu wax waaye nag na giñ lépp loo xamante ni it nag ci bagage yi ñoom ñaar kenn ci moo ko yoroon mooy moo ko occupé woon bi nga xay li nekk nekk moo ko dencoon ci biiri baga walisam wala yu mel noonu su boobaa moom kooku nañ jàpp ne rek li ñaaw urf moo ko joxoon nañ ko ko bàyyee ndax xëy na am na nu mu ko denc noo xamante ni bu ko moomul toon boppam faaw dana koy génne léeg-léeg nit di ko gis wala yu mel noonu wallahu taala alam jërëjëf sëñ Murtada ba tey kii dafa wax ne sunu boroom daa wax ci alquraan ne wadrib lahum mathalan asxaaba alqaryati id jaaha almursaluun muy laaj ba xam asxaabul qaryati jooju alquraan wax mooy ñan maa ngi wax kii laaj laaj bi na dellu ci kutubu tafasir yi wala ci xisasul anbiyaa yi def naa dana ci gën a am xissa bi ni mu gën a yaatoo asxaabul ñoom nañ ko waxee mooy ay nit lañ ñu dëkkoon ci dëkk bu ñax am Antakiya yaakaar naa lool du sori boori Sham wala yu mel noonu léegi xëy Isa dëkk boobu Xariya nee nañ Antakiya lañ ci jublu Isa moo fa yónnewoon ay rusul am na ñu ne ñett lañ xam naa ñu xawoon a doy war daan jaamuy xiram def naa yónnee na leen ay yoon bañ demee nanguñ ko ñoom la suñ borom di waxaat a ginnaaw jaa arsalnaa ilayhim musnayni fa kazzabuhumaa fa azaznaa bi saalisin fa qaaluu innaa ilaykum mursaluun dem nañ baan ma antum ilaa basharun mislunaa wa maa anzala rahmaanu dëkk la woon isa rusul isa ñoo fa jam ñoo fa demoon ala asahil aqwal dëkk bu ñu daan wax antakiya xam naa ñu demoon doon leen woo ci yàlla day mel ne nag bañ demee nangu lu ñu woon ñoo lañu leen doon wax loolu comme ni ko alxuraan nettalee loolu it eh, rek danañ ci déggee lu ulama ul maani gën a fonk mooy bi ñuy wax ci axwaalul isnaad ci imaamu takiid fi ñu ko war a defee mooy alkalaamul mutaabiq li muqtadal xaal mooy wax ni ñu ko war a waxee rek mooy bu fekkee ki ngay waxal gëm na weddiwut jarut taakiidal wax ko naan rek bàyyi bu fekkee weddi na nag nga doog ko taakiidal waaye ni nga koy taakiidal it comme ni mu weddee rek loolu masal la moo xamante ni alxuraan jëfandikoo na ko foofu is jaaha al mursaluun isa arsalna ilayhi musnayni fa kazzabuhuma fa azan saalisan fa xaam ilaa ilaykum mursaluun xaalu ma antum ilaa basharun mislunaa wa ma anta rahmatun in antum laa tasibuun dem na ba ne xaalu rabbunaa yaalamu inna ilaykum la mursaluun kon taakiid na ko ci jumla ismiya eh, inna googu rabbu naa gém ci boole loolu lépp taakid la jaañ loolu rek dañ ko ci déggee ci li ulama ul maani di wax ne ay wax chaque jour rek dafa war a nekk mutaabiq li muqtadal xaal kii wax nga xam ne weddiwut wax koy wax rek mu dégg jërul taakiidal ndax weddiwut ki nga xam ne wedd na nag nga taakiidal ko comme ni mu ko bëggee loolu feeñ na ci ni nga xamante ni alxuraan tontoo na ko waa ahlu xariya muy waa Antakiya googu nga xam ne Isa moo fa yebaloon ndawam yi bu delloo ci kutubu tafsir nag dana ci am xissa bi lu gën a gudd tuuti jërëjëf sëriñ alxaaji kii dafa wax ne doomi njaaloo ndax dagan na mu nekk ilimaan doomi njaaloo day ginnaaw moom gisu ko askari ci ku dul ndeyam duñ ko ne koy sa baay mukk kooku ci boppam sib nañu nag su fekkee ne moo fi ëpp xam-xam topp na lislaama mu sell sib nañu muy jiite ajjuma waaye mën naa jiite nag julli julli yi juróom mën na koo jiite ndax moom ci yim boppam ak sellam ci boppam moom moo ko fàggul boppam waaye kenn fàggulu ko ko kon nag di taxaw ci kanam ay gor yoo xam ne ni ay jullit lañu tey ay setu waaye lañu ca kenn ku ci nekk boo taxawee mu di la xeeb kooku ci boppam loolu la ñuy bañ karaahiya boobee nekk ci xol mi nit ñi muy jiite waaye su fekkee dëkk bi nag moo fi ëpp xam-xam moo fi gën a màndu moo fi gën a mën taxaw ci biir lislaamam mën naa jiite lu dul ajjuma waaye ajjuma nag moom tere nañ mu jiite ko. jërëjëf sëñ Mourtada ki dafa wax ne koo xam ne daa doon gumba waaye nag fiq xam na ko lool ndax dagan na mu nekk ilimaan wala déet. waaw kooku rek cheikh la wa jaazat imaamatu ama wa muxaalifin fil furu dagan na nit ki nga topp ci gën jiital def imaam koo xamante ni ku gumba la waaye nag dañuy wane ne kuy gis moo gën ndax moo gën a mën a moytandiku sobe yi ak yu mel noonu moo gën a mën a jaxasoog nit it xam nga koy gis ci imaam day bërëb bu tedd boo xamante ni buñ sañoon rek chaque jour ki nga xamante ni al akmal ki gën a jege ak mat rek moom lañ koy def waaye jiital kuy gis muy julli ci julli wala ñu fal ko imaam dagan na dara newu ci cosaanu loolu mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daana faral di tukki léeg-léegi di batale abdullahi ibnu umm maktum muy jiite ci julli yi ci xam ngeen abdullahi ibnu maktum daawul gis daana noddal yonente bi sax lu bari mais daana tukki ci xare yeeg yu mel noonu di ko wuutal ci julli gi muy jiite dañ ne ko gumbale koo xam ne ca teewut daana nodd dañ ne fu Musaa nekk nodd rek balaa jóg ñi ñee xëy naan ko asbaxte asbaxte mooy jógal jógal nodd bët set jot na bët set leer na leer na mu doog a jóg tàmbale nodd loolu danañ ci dégg ne jiital ku dul gis muy julli dagan na di jëf yonent bi yooyu sallallahu alayhi wa sallam nag bu dee day ko am xam-xam waaye nag ku gis moo gën moo gën a mën a moytandiku sobe yi comme li ngeen ko waxee moo gën a neex a jaxasoo ci yu bare bari moom kii gis kooku waaye nag jiital ko gumba dara nekku ci jërëjëf kii de wax ba tey ne ndax dagan na ci kuy julli jullik farata muy jàng laaya yoo xam daa am sujjóot waaw digal nañ képp kuy julli wala ngay jàng alxuraan ci waxtu woo xam ne mënees na cee sujjóot boo agsee ci bérébu sujjóotukaay nga sujjóot loolu am na solo innamaa yu'minu bi aayaati llahi izaa zukiru bihaa xarru sujjadan niki noonu ba tey di julli àgg si fu ñu waree su jooti su jootoo loolu amul solo loolu ba tey alxuraan xam nga mi ngi koy kii fenn la la stakbir mooy ñi nga xamante ni dañuy julli ci duñ su dañuy war a su joot ci duñ su joot loolu gënul ku ko ku ko def mën ngaa dugg ci kii woowu ci tëkk woowu suñu borom di wax ci alxuraan waaye nag comme loolu noonu la demee tax na ba fuqaha maliki yuun yi ne dañoo si ci kuy julli muy tey di tari saar woo xamante ni ci jullik farata ak joot da ci am ni ko Cheikh Khalil waxe wa taamuduha bi faridatin aw xutbat tey di tari saar woo xamante ni xutba euh, su da ca am dañ ko sib ci mashhuuri mazhab Malik ngir ñaar waral na ko benn da nga tari sujjóot wala nga ñàkk sujjóot bu fekkee tari nga saar woowu sujjóot yow imaam ji da nga jaxase maam muy bu baax a baax xam nga léegi léegi surtout boo doon wax ndànk jekki-jekki sujjóot ci takkusaan gi tey bu ko imaam ji defoon dana jaxase maam bu baax a baax xam nga niki noonu imaam kenn ku doon jullit boo ko tayoon di ko tar nikki noonu boo téyit bu baax man ngaa andil sa bopp le man ngaa jaxas sa bopp léeg-léegi mën ngaa sujjóot ba àggal rek toog di taayee jàpp ne da kii fàtte ko looloo waral fuqaha maliki yu ni di tere taamudu qiraata ayatin fii sajda wa taamuduha bi ko faridatin waaye nag koo xamante ni def nga ko ba noppi masalatu xilaaf ba tey am na ñu ne day jéggi aaya jooju nga xamante ni fa la sujjóot bi nekke ala xaal donte nag dañ ne ku koy jéggi it na nga ko jàng ci sam xel waaye bu ko jéggi noonu rek bàyyi ak yu mel kon jéggi ko ngir ngànt dañ ko sopp lii nag mooy mazhabu Malik safaan lenn ci mazhab yi man duub la ci mazhabu Shafii yi loolu surtout nag ci guddik ajjuma ndax dañ ne nag xadis bu wér boo xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wax nañ ci ne guddik ajjuma li ci gën a bari guddik ajjuma ñu ngi ci jublu alxamis ci guddi bët sedd ajjuma daana ci faral di tari suuratu sajjati am na ñu ne ràkk bu mujj bi mu di ci tari tabaaraka léeg-léegi loolu nag kon taqoo gi mu ko taqoon tax na ba ci lenn ci borom xam-xam yi ba ci Maliki yu ni sax ne loolu kenn sibu ko jour boobu surtout nag koo xamante ne da nga ko def bisu ajjuma boobu ngir roy ci ni ko yonent bi daan defe nekki noonu ba tey lu ñu soppal rek ci masabu Shaafi'i waaye nag mashhuur ci masabu Maalik moom mooy loolu nga xam ne ixtasara alayhi Cheikh Xalil mooy wa ta'ammuduha bi faridatin mooy dañ ko dafa wax ne ndax li ñuy wax yamoo yamoo ci julli ak dal mu ne ndax yooyu dañ koy santaane ci julli naafila niñ koy santaane ci julli farata xam naa daa seetlu ne ñi julli farata dañ koy teelu te bu dee neuf la léeg-léeg dañ koy xaw a gaawal tuuti ñu laaj ba xam ndax dañ koo sa sàkkut fii wala déet julli moom wal musalli yunaaji rabbahu kii julli dafa mel ne dafa sukk fi kanam boroomam di deeyaaleeg moom kooku moom ku koy def ku ne ci toroxlu nga ko war a defee ki nga xamee nag mooy julli julli farata yi nga xam suñu boroom aw yat la ci teg kooku ci boppam moom mooy ki nga xamee ne dafa war a li ñu santaane ci sàppe mu def ko yemoo ndax yontu sallallahu alayhi daana def buñ bu bu muy bëgg a julli mu ne sawwoo waxtadiloo fa inna kamaala salaati fi taswiyati sufuuf na ngeen yemoo te na ngeen uh, jafar seen tollale seen yëpp ndax ma matu julli kët mi ngi ci ngar fonk sàppes yi ci boppam te xam ne sàppes yi ci boppam mooy doon sa seere sàppe ci yowmal xiyaam kon kooku julli farata gi daana waxet ne saa soo xamee ne am na ñoo xamee ne sax ñoom dañuy def bu ñuy julli ñuy tollale feneen wala ñu nekk ci seeni kër jaral na ma de saa soo xamee ne am na ñu demee noona ma doxe leen gannaaw dem lakk seeni kër wala ñu demee noona kon jullik farata ci la ko daa waxee jullik naafila nag ci boppam yaa soxla ndollan bu la neexee nga yemoo bu la neexee nga toog ci bitti bu la neexee nga toog faneen waaye nag ala kulli li farata gi moom yemale gi ak eh, tumaaniinantu bi kooku ci boppam daa mënta ñàkk kooku kooku ci boppam mooy fi nga xamee ne fa la ñu santaane sàppe yi gën a yemoo ñu gën a réglé teele ñoom yëpp teewlu mel ne borom dafa def jëmm nga jàkkaarloo moom di waxtaan ak moom kooku moom moom foo lañ gën a sante loolu naafile gi nag ci boppam ba tey noonu moo ci gën waaye noo ko naafile rek baax ndax naafile ndolloon rek la jërëjëf sëriñ Murtada kii dafa wax ne bind xadiis da ci dugal yenn màndarga gi nga xam ne moom lañuy jàng ci imla lu mel ne bu àggee fu ñu war a def virgil fu ñu war a def point fu ñu war a def euh, alaamatul istifham ak yu mel noonu mu ne ndax loolu dina dagan bu ñu bind xadiis wala déet laa ba laa baas dara waru cee nekk insha allah ndax bind xadiis dabt ko mu dëppook xawaadi imlaa yi luñ fonk la waaye nag xadis daal li ci am solo mooy loo ci dugal ca bokk ci rek na ko xam xàjjale ba nga xam ne moom la ca loolu defe naa moom kenn mënu ko ca jaawale sax ndax dañ ciy xàjjale jumla bi fi mu tàmbaleeg fi mu yeme ak loo xam ne xeetu alaamatu istifhaam lay doon ab laaj lay doon wala yu mel noonu rek mu koy tegtale loolu dara waru ci nekk insha allah allahu alam jërëjëf kii tamit day laaj ne ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wàcce kaamil bi ci naafil yi mu daan def ci koor gi maanaam ndax daana jàng kaamil bi ba mu jeex ci biir naafila yi mu daan def ci biir weeru koor hmm. naafilay weeru koor xam ngeen ne sopp nañ ko lool luñ fonk la taraaweex man xaama ramadaan imaanan waxti sàmbar googu taraaweex la ko ñu bare bari tekkee taraaweex sopp nañ ko lool ni ko Cheikh Khalil waxee wa taraawixun wa infiraadun biha in lam tuattilil masajid wal la fiha wa suuratan tujziu salaasan wa ashrin suma juilat sittatan wa salaasin wa xafafa masbuubuha saaniyata wa laxiqa taraawix fonk nañ ko ci weeru koor baax na mën naa def am na solo ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana defam du ko def wallahi ku ne xam na ne jëmmi taraawix joppam li ko yonent bi def bëriwut dañuy wax ne mos na koo jiite benn yoon ca suba sa mu jiite waat ko defe naa ca ñetteel ba wala ñeenteel ba génn mbooloo mi bari lool mu duggaat ci biir daal ne leen lam yax fa alayya makaanakum walakin uh, gis naa leen bu baax a baax de waaye nag kaw ko ma xaala damay ragal ñu farataal ko ci yéen duggaat toog nga xam ne li gën a wér kon day mel ne ñaar yoon la ko julli wala ñett bàyyi ko partout difaatu ko ngir loolu ma wax noonu nit ñi bare da ko jiite benn yoon jiitewaat ko beneen def naa beneen yoon ba mbooloo mi bari lool bi mu génnee gis ko duggaat boobu lañ ko bàyyi kenn defaatu ko ci jamono yonente bi ci noonu ñit ñi niñ koy jullee mooy kenn par kenn par kenn ba mu jeex ba koor gi jeex loolu moo ba yonente bi jóge fi jamonoy Abu Bakar yépp it loolu moo am jamonoy Ousmane loolu moo am bi Seydina Omar wala boog jamonoy Omar boog bi Omar ñëwee nag gis nit ñi ñuy dajaloo benn par benn dafa am ijtihaad boo xamante ni moo ko def mooy ñii ñuy jullee weeru koor ñun dafa dajale ñëpp bañ dajaloo def ko ñaari group góor ak jigéen góor ñi mu woo ubay ibnu kaab moom nga xam ne ci xuraa la bokkoon ne ko dee leen jiite jigéen ñi mu woo tamit mu daar ne ko dee leen jiite nekk di bagg seen diggante naan ni'matil bidaa ni'matil bidaa wane ne lii mu def bu dee bidaa it bidaa bu baax la bidaa lim ci jublu foofu luñ sos xëy na sos gi sax sosuñ ko ndax yonent bi daana ko def waaye xam naa boole gi mu leen fàttaliwaat gi rek xëy na waaye loolu du bidaa kon loolu ci jamono Omar lañ ko tàmbalee defewaate nii sopp nañ loolu kon tara yónnante bi nag comme loolu ma la ci wax rek ñaari yoon la ko jiite wala ñett kon di wax naan jiite koo xam ne ñaari yoon la ko jiiteeg kii mënees wax naan xatmu la ci alxuraan ji xatmu ko ci waaye rek ngeen fàttali ne yónnante bi moom li ñuy wax salaatu tahajjud dafa war ci moom ni ñu koy defee ci weeru koor ne la koy defee ci luur weeru koor ngeen xam ne it weeru koor daana fonkoon na alxuraan waxtu na waaye la ko gën daan fonk jibril sax daana nafaranteeg moom alxuraan weeru koor ba sax dañ at mu mujj mi def na ko moom ñaari yoon am maa nag julli na ko taraawix am déet amut ndax yonte bi nee la ñaari yoon la ko julli ñettut dañ ko bàyyi ginnaaw bi nag moo tax ñu koy defaat moo tax ba léegi ci jamonoy Omar nag lañ continuer di ko defee ba léegi comme niñ ko baaxoo defee nii donte ràkka yi sax am na lu ci wute lañ ko daan def ak lañ koy def euh, wute na waaye li ëpp ci jumhurul ulama léegi ñu ngi koy def sukkandikoo ko rek ci euh, fukki ràkk benn ñaar ak ak witar ci li nga xam ne moom la Aïcha wax ne ma zaada fi ramadan wala fi xayri ala ahad isna ashar raka baadal witr yonente bi musta dolli moo xam weeru koor wala lu weeru koor ci fukki rakk ak ñaar bu noppee teg ci witr loolu mooy sunna si nga xam ne moom la ñuy def ba léegi amaa yonente bi daana ko julli nag di ci xatmu alxuraan moom ñaari yoon la jiit la julli tarawe yi ci des yëpp këram la ko daan defee moo tax allahu alam yamale am njur ci koo xam ni dafa ragal ne su doom yi baree da koy jural ak ñàkk ndax su boobaa dina daggal ko mu jekki-jekki dagg am njuróom bañete am doom ngir na su doom yi su baree da koy sonal du am lu mu leen dundale waaw loolu la ñuy wax taxdiidu nasl planning loolu moom bu fekkee comme noonu ma ko laajale loolu moom ñoom ñaar war nañ cee mën a bu ñu ci dëppoo ñoom ñaar warta am benn jafe-jafe ndax loolu nag doom di ko indi ca mu la ne doonte sax ki koy dundal mooy yàlla waaye yaakaaroo ci ne dana ngeen am ay jafe-jafe wala jàpp nga ne njur mi bu baree dana indil feebar soxna si wala yu mel noonu loolu moom buñ ci dëppoo ñoom ñaar dara neewu ci masala mu gudda gudda gudd la mooy taxdiidu nasl ak xatu nasl ndax dagan naam boo demee fi si xalit waxee wali zawjiha al aslu min nisaa foofu la ko suraax yi di indee alaakul ñoom dañuy wax ne jëfandikoo garab goo xamante nii day xatu nasl mooy day tax dootoo amati doom partout dañu loolu dëgganut niki noonu ba tey naan garab goo xamante nii day yu bari baridu rahim mooy day tax ba tey ba tey benn rek sorewuñ xatu nasl ak tabridu rahim sorewuñ dañuy loolu jaaduwul dëgganut dañu dont sax dangaa jàpp ne kii bu dangaa am yoo foog yu bare bare bare daal loolu gënut waaye nag loolu bokkut yemale sam njur ngir ragal feebar juddoo ci bu metti ci soxna si surtout bu fekkee doom yi dañoo jege bokkutit ak nag yamale sam njur ngir jàpp ne doo am loo leen dundal wala yu mel noonu loolu ñoom ñaar boo xamante ni dëppoo nañ ci rek loolu dara newu ci donte nag ñu xam ne it am ay doom lu am solo la bu fekkee ku ko yàlla man loola tanaakaxu wa tanaasalu fa inni mukaasirun bikumul umam yawmal qiyaama loolu dara newu ci rey njaboot loolu amut solo wala taqtulu awlaadakum xashyata imlaaqin kon koo xam ne àgg nga ciy def loola nga la wóor ne rek ses nga rek rek comme li ñu waxoon léegi rek darur rek moo war a tax nit ki def lu mel noonu euh, loolu la lenn ci ulama yi wax ne shurbu shurbu dawaa in yaqtau nasla xarun kazaka shurbu maa yubarridu rahim mooy jëfandikoo garab boo xam ne day arrêté am njur loolu dañ koy tere naan loo xam ne it day dindi ay kii yi nga xam ne mooy waral am doom loolu ba tey baaxut waaye loolu lépp ne bu fekkee da nga ko def rek ngir ragal ngir bañ am ay doom wala yu mel noonu waaye nag boo ci sukkandikoo ci loo xam ne ab docteur moo la ko wax docteur bu wér boo xam ne li mu wax dëgg la wala nga sukkandikoo ko ci loo xam ne sa tajriba la boo xamante ni am nga ko loolu dara newu ci ci am solo mooy ni ngeen ko dëppoo yéen ñaar su boobaa ni nga koy defee moo xam looy jëfandikoo lay doon moo xam beneen façon boo koy defee la waaye na ngeen ci dëppoo rek yéen ñaar ku ci nekk xam ko ko soxna si def ci yëgalu la ko waaye yow tam bu koy jëfandi bu koy def ci yëg jubóowoo ci soxna si wallahu alam sëñ alxaaji ci laaj bu mujj bi ki day wax ne ndax desu kuy naan sàngara mënees na ko naan wala déet xam naa ku naan sàngara ba noppi wala koo xam naankatu sàngara la aw desam ci loo xam ne doonu sàngara mu naan ndox ba desam mu ne ndax loolu dagan na keneen di ko naan wala déet daganul ndax innama alxamru wal maysiru wal ansaabu wal aslaamu rijjusun min amali seytaani fajtanibuhu laalakum tuflihuuna te sàngara mooy umul xabaayis ku naan sàngara bindal nañ ko mooy yàlla yépp ndax amatul mbañ ku mu jot rek mën naa def ci yow la ko soob bu yemoon ca ndeyam sax mën na koo sëy ko ku bindal nañ ko bàkkaar yépp nag kon aw desam diisu ko naan lu mu lax loxo ba sax diisu ko laal kon nag noonee sàngara sa araame te moom amul wattandiku ci dara lépp lu mu desal lu mën a doon loola ñu ngi ko yor atteb sobe la sobe la soo xam ne si nag ku koy jëfandikoo mën naa am rogalaat yu ci tikk fekk naanaal naanaal naan loonal sàngara kon nag lépp loo xam ne dafa jóge ci ku naan sàngara ab desam ak lu mu tàbbal loxoo ak yëf yi yooyu yëpp kooku ci bopp araam na araam sàngara kenn wuy ko naan jërëjëf sëriñ Murtada ci laaj bu mujj bi ci day wax ne ndax dagan na ci ab jullit mu denc maanaam mu takk mbokkum soxna si baayam maanaam euh, rakki soxna si baayam mbaa boog yu mel noonu ndax loolu daggan na wala déet waaw loolu dara newu ci léeg-léeg mooy takk rakk ko ñaari jigéen nga yor kii sa baay yor kii loolu dara newu ci su fekkee maanaam luy tax ñu la koy tere mi ngi ci am rek ci faneen lay jaare mooy yàgg kooka ngeen nàmpandoo wala mu am maxaram bu dee am daal faneen lay jaare waaye nag ci kaw gi nii rek daga dara newu ci waaye nag bu fekkee da ngeen a nàmpandoo ja wala mu xale boobu nàmpandoo ak sa waajur woo wala yu mel noonu loolu dana araam waaye nag ci beneen côté lay araam it ci côté nàmpandoo maa takk koo xam sa <clears throat> magam sa bàyyee ko yor loolu dara newu ci wallaahu jërëjëf Serigne Mourtada jërëjëf it Serigne Alxaaji kon loolu mooy jotaay bi liñ fi indi woon ci ay laaj ëpp na sax loolu kon dañuy sant bu baax sëriñ alxaaji Mbakke Jaxate santaay sëriñ Murtada Buso xanaa rek di leen jox rek seeni kàddu gu mucc ngir ñu mën a yëkkati jataay bi salaamaaleykum yéen mbokk yi noo ngi leen dénk di dénk sunu bopp nu fas yéen nun ñaar nun ñëpp nuy góorlu ci làmbatu lu baax ndax làmbatu mooy tax a daj yéen gone yi nga xamee ni yéen taxawal lii nag dañuy defar ay jataay yoo xamee ne jataay xam-xam la ngir bëgg ngeen gën a set seen moroom yi nga xamee ne loolu itteelu leen ñun di ko fekke ndax ñu mën cee jël lu ñuy jëriñoo noo ngi leen di ñaanal di ñaanal suñu bopp ci dara gi Sëñ Tuubaa mi nga xam ne lu dul lu demel nii rek gërëm loowu ko kon nag yàlla nu yàlla xiir ci li nga xamee ne moom la Sëñ Tuubaa gën a bëgg ci nun nu sax ca nii nu koy waxee nit ñi koy dégg nañu ko taatan ci seen xol te di ko jëfe kon nag nan sant yàlla bu baax a baax te fas yéene gën a góorgóorlu ci lislaam ndax ku deful jataay bii kat da nga def beneen jataay jataay bii nag mu yàlla gërëm loo na ko malaayka yi teewoon ne dañuy bindal ak njëggal rek kon nag na ngeen gën a góorgóorlu ci loolu wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ bi kàddu gi am na solo lool yal na ko yàlla def mu taseeg nopp yu koy déggu te di ko jëfee kon dañuy santaat bu baax di ñaan suñu borom mu dëgëral la te kàttanal la te ci suñu kanam te barkeel sab liggéey ci lislaam ak ci xam-xam di santaar sëñ Mourtada Bousso mi ñu àndaloon kàddu gi sëñ bi tëjee rek doy na sëkk kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen doxaat euh, beneen daje incha allahu suba ci beneen jataayu xam-xam wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.